الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوالدين سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الواهب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi te di jàkkaarloo ñun ci seen rajo télévision bu Asfiyahi wala yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu ci Asfiyahi FM 97.3 ci Dakar wala ngeen ànd ak ñun ci plateforme yi Asfiyahi am ci réseaux sociaux yi fu ngeen mën nekk ci àdduna ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyoo boobu nag ñu jiital ci alxalifatul am li tariqati tijaniya muy cheikh sayid aboubacar si ibnu cheikh alxaaji mahamadul mansour ibnu cheikh sayid alxaaji mom serigne Babacar si Mansour Al Khalifa ñu nuyu ko ziar ko ndokkel ko ci bis bu mag bi tabarakallah ziar ko ziar istimdar sak ci mom ñaan waaye di ko ñaanal yàlla yalla na yàlla gëna guddal fanam yalla na yàlla yok wéram lépp lo xamne yeenem la bëgg-bëggam la mébétam la ci diina jek tarixa bi ci njaboot gi ci mbokk gi ci réew mi ci aduna bi yalla na ko yàlla defal naal yi mu naal ak sumbu yi nga xamne ne sumb na ko ko yàlla eggale ci loxom rawat na jumaaji tabarakallah ñu ànd dog mom ak njaboot mam mam sasel xaaj Malik yeb julli ko jullindoo koog moom ay at yu baree baree baree bëri yu ànd ak wér yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu nuyoo ci moom nag mooy suñu nuyoo ci njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp buñ ci tuddee Cheikh Alhaaji Malick si Maodo sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz sëriñ Mansour Sy Dabakh ak seeni rak mu yóbbaale lépp lu njabootoo ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick góor ak jigéen ñoom ñëpp di suñuy sëriñ ñu nuyu leen ziar leen ndokkeel leen ci bis bu màgg bi waaye nuyu ziar mbooleem ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk dina yi ci àdduna bi jiital ci nag waa ahlu bayti rasul شرفاء ينجبوت ينتي صلى الله عليه وسلم زيار لن بباخ زيار نجبوت شيخ احمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه نيو بباخ نجبوت شيخ عبد القادر الجهلاني واي نيو مبولم خلفاء يتي ريمي ييب نيو ييب تكو سي cheikh El Hadj Umar Fouti radiallahu taala anhu ka nekk ci bopp di alxalifa Thierno Mouhamadul Bachir Mountaga Taha Cheikh Omar ñu nuyu ko ziar ko ziar istimdaad moom it sàkk ci moom ñaan waaye ñaanal ko yàlla yal na yàlla gën a guddal fanam te yokku wéram noonu lañ koy jaa ñaanaleem mbooleem usra omar yi yëpp buñ ci tuddee Thierno Madani Mountaga Ahmad ak i rakkam ak mbooleem njaboot cheikh El Hadj Umar Fouti yëpp góor ak jigéen mu yóbbaale mbooleem nuyoo yi ci këru diina yëpp ñoom ñëpp tabaarakallahu ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér waaye sàkk ci ñoom ñaan mbokk yi tabaarakallahu iidun mubaarak ñi ngi euh, baalu àq ñëpp di déwénati ñëpp euh, tabaarakallahu di leen ndokkeel ci bis bu màgg gi ci bis bu màgg bii di bisu korité waaye ci guddi gu màgg gi tabaarakallahu moo tax ñun ñëpp ñu bokkandoo di wax ne déwénati baal leen ñu àq waaye ñun tamit baal na ñëpp àq ñi ngi baalu àq ñëpp nag ñi ngi baalu àq kilifa yi ñi ngi baalu àq njaboot gi ñi ngi baalu àq wayjur yi ñu ngi baalu àq mbooleem fu fu nit mën a nekk waxuma la jullit mbooleem fu nit mën a nekk rek ñu ngi baalu àq ñëpp waaye tamit di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla bu mu koor gii ñu génn yàlla bu mu nekk suñu bu jëntalu koor tabaarakallaahu julli gii tamit yàlla bu mu nekk suñu bu jëntalu julli bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa fa tabaarakallaahu ñu ñëw ak yéen nag niñ ko baaxoo ak yéen bis bu nekk bu korité jotee dañoo baaxoo ak yéen seen rajo télévision Asfiya yi defal leen seen plateau mu nekk seen déwénal ku ne xam ne ne ramadaniyaat booleem euh, jour julli koor gi yëpp ñu ngeen àndoon ci ak ñun euh, ci euh, thème bi nekkoon jàngat mbindum mag ñi tabaarakallaahu ñu doon ci ànd ak ay borom xam-xam waaye doon ci ànd ak ay taggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen bégal ak di leen jàngal ñun ñëpp ñu bokk ci jariñu fa tabaarakallaahu waaye loolu yëpp nag tey macha allah ñu fas kuy ñu fas leen yéene ànd nag bégal leen ci guddi tey gu màgg gii fa tabaarakallaahu jox leen ko muy seen ndéwénal ñun ñëpp ñu boole ko jël ko muy suñu ndéwénal te yàlla bu mu nekk suñ bu suñ mu jënt jul suñ mu jënt lu jul incha allahu taala muy seen plateau spécial Korité ni ngeen ko baaxee nag ñu ciy ànd ak nga xam ne moom mooy alxaaji Souleymane Ba incha allahu taala niñ ko waxee njoolu njool fuuta mu fas ñu yenee nag آه، فيل قلاج مام سيسر الحاج مالك بي وقتانا لنو تي ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم وقتانا لنو تي بنو مانيا واي وقتانا لنو تي شيخ سيد احمد التجاني شريف رضي الله عنه اك طريقام واي نك مبوكي fas leen yéenee bégal nag ni ngeen ko baaxoo korite gu jot mooy alxaaji Abdoul Aziz Mbaye ak ki nga xam ne ak ñi nga xam ne mooy njabootu mam Moussa Ali Mbaye Baye daaw góor fa tabarakallahu ak njaboot gi mu ko ànd ak ñëpp fa tabarakallahu fas leen yéenee bégal ci guddi gu màgg gi incha allahu taala mu nekk seen ndéwénal waaye nag wéetuma ci ndax maa ngi ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy tafsir Hamid Wele tafsir Hamid ñu ndokkeel la jaajëfal la ci liggéey bi tabarakallahu baalu la àq dila wax deewnati yàlla nagn ko yàgg teewé bi jahnabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ma bàyyi la rek nga nuyo ak ñinga xamne ñom ñoo ñuy seetaan ci leeru dina ji leeru tariikh bi leeru tiwaawon ci guddi gu màgg yi di guddi korité ci guddi gu yi di di guddi korité ñu ngi lay ziar bu baax haji babakar di ziar suñu gan yu teddi yi buñ ci limé Baye abdul Aziz Mbaye ak suñu Baye daw gor ak njabot yi ñu àndal yépp fa tabarakallahu di nuyu haji suleyman Ba di nuyu kilifa kër gi maam Umar Ndiaye waaye di sof ci seen nuyoo comme ni nga nuyoo euh, kilifa diine yi sëriñ Babacar Sy Mouhamadinil Mansour bu Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anu ñaanal ko yàlla may ko wér dolli ko sutura dolli ko kàttan naa li mu am ci kër maamam kër Seydil Hadji Malick na ko yàlla matal fa tabarakallahu noonu la ñu nuyu xaritam Ceerno Mouhamadinil Bachir ak xaadimul hadratul umariya Ceerno Mouhamadinil Madani Muntaqa Ahmad Seex Alhaaji Umar fa tabarakallahu di ndokkale ñëpp ci julli gi di baalu ñëpp ak fa tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax a baax ndax am na ñoo xam ne ñun nag ñoom ñoo démarré ndoo koor gi te mataluñ ko kon bu ñu ko matalee euh, defu lu ñu yàlla lu tax mu bàyyi ñu matal ko mm-hmm. ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax di la ziar bu baax mm-hmm. di la masawu coono yow ak professeur Mame Ousmane mm-hmm. ci ramadaani yeet yi ah, di la masawu coono yéen itam tey fa doon xutba tabaarakallaahu maa ngi woon géejewaay juma mbodd 3. ah macha allah tabaarakallaahu en tout cas ñi ngi ñi ngi ndokkeel ah, imaam yëpp ci xutba yi am am solo yi nga xam ne tabaarakallaahu dégtal nañ ñu ko ci bisab tey bi di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yàgg leen ci kanamu mbooloo yi macha allah xam naa ne ba nga xutbaa ba pare macha allah am na noo def eh, waañ wa ah waaw mais xam nga korité dafa baaxoo kër yi dañoo baaxoo di togg laax wala caakiri lu jiitu ñoo añ xam naa loolu moo ma jàpp ba añu ma sax baaro da nga da ngaa dóor ci laax yi ba nelaw ba nu mu tuddati <laughs> fa tabaarakallah kon xam naa ni ñuy def rek mooy euh, incha allah bala ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy alxaaji euh, Souleymane Ba dama bëgg rek bàyyi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan mm. ñu ànd ak nga xam ne mooy alxaaji Abdoul Aziz Mbaye incha allahu taala mu bégal ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu bég ñu jox nag alxaaji Souleymane ba mu dugg ak ñun ci waxtaan wi ndax dama bëgguma mu nuyoo toog di xaar dama bëgg mu boole nuyoo bi ak waxtaan wi waaye tamit tabaarakallah ñu ngi ci ànd waxtaan la mu ngoog macha allah looloo looloo tax ma di ko sakkanal mm-hmm. waaye tamit di nuyu tabaarakallahu magam di suñu sëriñ mooy al imam Adama Ba fa tabaarakallahu moom it mu ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi euh, couleur ñu couleural jotaay bi macha allah borom mu karraratan macha allah kon tafsir Hamid Wele xam naa nañuy def rek ñu bàyyi alxaaji Abdul Aziz Mbaye waaw incha allah moo bil ñu jotaay bi incha allah bismillah Cheikh Abdul Aziz وصليا يا إلهي وجزيا أبدا

بكلمة تبغي المعمال إليها يا لم ترمي على خيرنا في الطير والنقم عقلت على سائر التواب وافتخارا بالله Hmm. عبد الله الذي خيمة من أطار الخيام في من حال الأوذان مولانا على سيد الحاج مالك للعربات على الدر في رجب ثم المنادي جنان ونور شمسي شمس الحاج مالنا ليل العروس يغلو جنوده وهو رعديد شخص الحبيب علينا ليل العالم في هذه درة من أحسن سيد الحاكم مالك سولا إدريس نوح وهود والخليل شمس الحي أول الشهر في ترتيب شخص الحادي مالنا ليلة العروبة حلت الروف ردف ثم المنادي ينادي مسميع الفهيم طلع على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما عما بشخص الحبيب على نسوان من أسف عرفنا ذاك من الأسف ابنه كيسا فيها الكنائس والأصنام شيخ سيد الحاج مالنا على الناس وحوش الغالقين كما سواكن البحر قد لاقت بنا شيخ سيدي بلا خلاف ورب الكعبة شيخ سيد الحاج علينا على النبي شو سيد الحاج على النبي وعليهم أجمعين صلاة ما ربي مهدائي من عما بصحبه مصطفى وقيل في طيبات قد كان مدفنه حذر بي سيد الحاج مالنا على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما منعنا بصحبه الصلاة تابعة ضبطا زرقان والحال عين عين شو سيدي من غير عزو ولا طبق شخصي أجملنا على النبي وعليهم أجمعين صلاة خمسة الأجمال جارية سيفا كذا ورق مع قطعة العجمال الغرام من متروك والي وأمه تركت دار بشخص تبي ومن خديجة دار بالعجون حوى خير البرية من قرب الوجه شخص أجمل على الناس دارا التي العادون خير البرية من قرب شخص الحاج مالنا ومن خديجة دارا خير البريات من عرب ومن عذاب خير البريات من عرب ومن عذاب شخص الحد مالنا خير البريات الحبيب خير الباريات ماي خير الباريات ماي خير الباريات من أرجل ومن سيح الملك على خير البريات ماي خير البريات ماي خير البريات من حرب الوشيات خير سيدنا يبقى نبيك معدودا من سيد الحاج مالنا خير البرية خير البرية زينب خير البرية من حروب شك حفيظه وربه عونه كفيه شمس الحجر خير البريات خير البريات خير أيوة، من بعد ما بدرا سيد سيد الحاج مالنا حب وبارياتي وخير البرية بدرا سيد سيد الحادي يبتدي من بعد ما قال الله الله ها أنت الأمم مصطفى من بعد ما قد خلت بدرا سيد السيد الحاج مرمى من بعد ما قد بدرا المصطفى من بعد ما قد خلا قدر السيد شيخ سيد الحاج مالي من بعد ما خلق الله ويقالون ها أنت أم الجد بدر السيد الأمم من دعاء نلت بدرا سيد الأمم لها أنت أملت بدرا سيد شخص حجم لها أنت أملت بدرا سيد الأمم ها أنت أملت بدرا سيد الأمم ها أنت حملت ها أنت حملت بدرا سيد شمس الحلمة ها أنت حملت ها أنت حملت ها أنت بدرا سيدي مر سنگ بيها أنت أم الجه ها انتي أم الجه ها انتي أم الجه بدرا سيدا سيد حاج مالنا ها انتي أم الجه ها سمي محمدا الحكم أمركتني أي كتمان فاتت سيحل ملنها أنت الشر ذي أسد بالواعد الصمد موصوف بالحمد ها أنت حملت ها أنت الضب قد نامت في حمل خير عباد الله شمس الحكم علينا فاخضرت الأرض والأشجار قد آملت فسمي العام عام الفتح شمس الحاج مالنا فاخضرت الأرض والأشجار قد حملت فسمي الفتح والرهب المصطفى فاخضرت الأرض والأشجار قد عملت فسمي العام عام الفتح شمس الحج مالنا فاخضرت الأرض والأشجار قد عملت كرام لي شوف صدعي مالنا فاخضرت الارض والاشجار قد حملت بالله فسمي العام عام الفتح والرفع مصطفى جب الهدى ثم ما بدوا والماء حمل بخير الورى المختار حمل بخير والمختار المختار في تبجبلون ما بأوا والباء حمل بخير الورى المختار جلسة علم جبلون ما بأوا والباء حمل بخير ورى المختار في القلم مصطفى إن البشائر ما زالت تبشر حتى أنار نوائي شامل جب الهدى ثم بأول الولبان شجر مترانا يا سعد مقتبس من نور جحانا جبل هنا بأول والبهاء حمل لخير الورى المختار في القدم فما لما جناء طير نفى ما هانت يسد المن جب الهدى ثم بغى الغرباء عمر بخير وراء المختار في القدم سار جناح طير نفع ما لك شوف العجب الجبل ما بأمن والبان بدبن بخير الورى مختار بالقادم صلى وشماتة نساء الزائرات سنا وتشميت هل المنام على نعم. ذوك العذب الجبل هو سيدتنا زهراء آسيلة من العجائب فالتعديل شفت علم للجد بلونا ثم بأول والباء أدبا حمل بخير نسوة قد قلنا آسية وبنت عمران تلك الأور لا في أيمن جبل هدى غرائب الغر كشف السر شمس الحجر غرائب الغر كشف السر لا صدح جمال جبلونا ثم مأوى والبهاء والبهاء أدبا حمل بخير الورى قدمت أصابت في كعبات مشرق والمغرب جسد سيد العلي يقبلون ثم مأوى الغربان ثبات الله ما خفت وتحنيزا على قسمي شرواه ما ضمه الأصداق شيخ سيدي العالم شفاع شفيعة صدور من مدعو توفيق يصل حلم الجبرونا صدور سرورا يقال هو كما كان مختورا بشخص العدم وإذ أتى كان مسرورا يقال وما كما كان مختورا بلا أمد المصطفى كما كان وخطونا بلا سيد الحاج مالنا واذا أتاك مسرورا يقال وما مقبولا كما كان وخطونا بلا من مقتولا كما كان مقتولا بلا سيد الحاج أتى كان يقال كما كان مقتولا بلا ألم وأخرجته نظيفا ما سواه وإذ أتى كان مسرورا يقال مكرولا كما كان مسجورا بلا ألم يوم السبابة مقباض أصابعه مثل المسبح يرنو شيخ سيدي الحاج وإذا أتاك مسرورا يقال صباح في تكبير شمس الحج مريم وإذ أتاك علينا حبيب الله سيد الحجر ورأسه جار حبيب الله شخص الحديث علمي ورأسه جاء من يمن وجاه عبر أذنا وعينا حبيب الله من راتب ندب صدر وقلب فؤاد والرحمة جاء من يمن ومن ومن شخص الحزنى وعين حبيب الله من راتب وقل من الذكر التسبيح ثم أيضا ولسانه شفتاه الوجه شخص الحجم شعر أصفاف من عسل الجنات والنبت أما الكف من كف ورسول جاء باليمن ومن عباد صلاة سوى جناتي والنبت أما الكف من كرم جنات والنبت أما الكف شوف الحجم الصلاة جناتي والنبت أما الكف من كرم جنات والنبت أما الكف من كرم صلى جناتي والنبت أما الكف من كرم جناتي والنبت أما الكف شمس سيد الحاج يلا جناتي والنبت أما الكف من كرم جناتي والنبت أما الكف من كلامي بأمن شفاء ثواب ثم ميمنة حلم وسعد لبدر النيل شيخ سيد الحاج مالك أمن شفاء ثواب ثم وسعد لبدر الليل أمن أم نور شفاء ثواب ثم ميمنة حلم وسعد لبدر الليل شيخ سيد الحاج مالنا أمن سعد لبدر الليل سيدنا محمد أمن شفاء ثواب ثم ميمنة علم وسعد لبدر الليل شهد الحد أمن شفاء ثواب علم وسعد لبدر الليل العالم حلم وسعد لبدر الليل سيدنا محمد علم وسعد لبدر الليل العالم حلم وسعد لبدر الليل العالم المصطفى وقد توالت على الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاد سيد العادي مصطفى علم وصحة لبدر الليل العام مصطفى علم لبدر النير العام مصطفى خرت لي الأوزان وانباعا هواقب الشهب ترمي الجنة شيخ سيد الحاج حلم وسعد لبدر بدر الليل الآن مصطفى تزلزلت أسطوانات الملوك كعبة ثلاثة أيام فلم مع الأركان أو سجادة صوت تعظيم مستوجب تعظيم شخص الحلم لنا تزلزلت أسد ولا الملوك ككعبة صلاة أيام فلم متابعة المصطفى وفي الولادات منهم جفنات فراحت وللفلاق عجاب عند شمس الحجم تزرزرت أسس ونادت تقوم فما وقد شرفات البيت ونهدى الإيوان والماء مثل النار شخص الحلم تزلزلت أسطو ونات ملوكك كعبة سلام الأيام فلم تغم صبا وقد أوت شرفات البيت وانهدم الإيوان والماء مثل النار شمس الحجمر تزلزلت قرصة ونات الملوك ككعتبان أيامها لم تقومي والموبذان رأى الآبار قائدة خيلا عرابا تجوب الدجلة في الخير عبد المسيح سطيعا جاء سائله مجيبه وهو قد أوفى على الشرع التلاوات قد بقت وقد ظهر وللهراوات ويل الفرس شخص الحجم تزلزلت أسطو ولا الملوك كعتبة سلاسة أيام تلاوات قد بقت وقد ظهر وللهلاوات ويل الفرس والسحر مدن تزلزلت أسطو منهم أخي ملكا مثل الشرفاء لم يخطأ من شيخ الحاج مالنا تزلزلت أسطر للأنبياء ما كن حاملا يمنع ميمن تن أجلس حبيبنا تزلزلة أسد ولا تملوكك كعبة ثلاثة أيام فلم تقل المصطفى بإذن خمسين عام الفيل قد طلعت سعد الصعود لذي سعد جير سيدي الحاج أسطوها المصطفى وكان ميلاده ميلاد إخوته وذاك عند طلوع الغفر كاسد الحاج مالنا تزلزلت أسطوع ونات الملوك كعبة زرازة أي المصطفى من بعد عشرين للنيسان جاء لنا صعد وفوز وغنم خير شيخ سيد الحاج علينا تزلزلت أسطو وعلات ملوكك كعتبة سلازته أيام فاتت سما وقد ما بالئا شروان قل يا البر في حفظ الاسكندري ثاني شخص الحاجي مالك تزلزلت الاسطر ونات ملوكك كعكبات زلازات أيام قد خلقوا لسبقي مؤمنا بالله شمس العجمرنا تزلزلت أسطوانات الملوك ككعبات زلزلت أيام فلم تهم الصلاه ومن يقل فهو القرنين قد قلت لسبق مؤمنا بالله تصح الملنا تزلزلت أسدق وأنا في الملوك كعبة زلزلت أيام فلم تقوم فما تلميذ لأرصف طاليس ما في الكهف أرض أيوة، أيوة. لو شمس العالم سيدي الحي لا لا لا تزل زالت أسدك ولاة الملوك ككعبة ثلاثة أيام فلم تغمي وفي ولايتي أو كوني ملكا قل إنه صالح su dàq waa Cheikh Seydi Hadji Malick إنه صالح من تصدق شيخ سيد العالي مالك تزلزلت قصده ونات ملوكك كبات الثلاثة أيام فلم تغمي وقل من البدع المستحسنات قيام عند ذكر طلوع الشمس شمس الحي ملكنا تزلزلت أسد ونات الملوك ككعبة زلزلت أيام فلم تقوم فلا وإنه في ربيع الأول العباد شوقي شيخ سيد الحاج بالنا تزلزلت قصرت الملوك كعبة ثلاثة أيام ظلمت تقوم صبا في يوم الاثنين فصل الربيع وذاك القول معمول أهل المهد شيخ الحجم المصطفى في يوم الاثنين في فصل الربيع وذاك القول معمول أهل المام شمس أجملنا تزلزلت أسطو ونات ملوكك زلازته أيام فلم تغم مصطفى وقيل بعد هليل الليلتين قد اختار الحميدي ثماني وبنو شمس الحرمان تزلزلت أسطر كعبات ثلاثة أيام فلم تهم صباح القضاعي إجماع عليه نعم لكن ما الأول وشهور لا سيحة مالك تزلزلت أسطر وانا حين قيل ذلك معمول لمكة أيضا فاعتبر وقوم بعد زلزالة أسد ونات الملوك كعتبة زلزالة أيام قولين قال رودي ليلا وتتميمه بالفجر فسبحا لما ليلة زلزالة أسطر ونهت ملوكك كعبة ثلاثة أيام فلم تقومي سيدي من حق عنه شاتم يوم سبيعه فجدته شيبة محمود ذو الحكم مولانا الشيبة محمود ذو الحاكم الله كتابي على خير الورى الحبيب علي الصنم زيد وصلي يا إلهي وجدي أبدا أن محمدا محتار في القمم وما مضى حين حمل في ولادته أيضا لقد جاء التنكيس شيخ سيد الحاج وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القيضة من بعد والدتي مختار أرضاه بنا المسروق شيخ سيد الحاج مالنا وصلي يا إلهي واجدي أنا أبدا عنا محمد المختار في القدم في العوات كن كنا ابقارا حليمة أخرى أبكار الحليمة أخرى عندها من بني سعد الكرم صلى وأم فروة أما أم أيمان خولة وشيبان الأنهار شخص الحاج مالنا وأمه فروته أما أمه أيمنة حولة وشيبان هن الحاضنات سيب سيد الحاج مالك ده خير البريات كانت من ليس الحرف وأم فروة أما أم أيمان حولة وشيبة هن الحادلة تصيب سلام رادعون حمزة مسرور سويبات أغنت من شيخ سيد الحاج مريم وأم فروة أما أم أيمن حولة وشيباء هن الحادنات سيم فما مرادعون فعبد الله حمزة مسرور زويمات أغنتهم من شخص الحجم شيماء وآسية عبد الإله أبو سفيان من بنت سعد نيل سبز الحجمان وأم فرات أما أم أيمان خولان وما وما ورداك ما قد صح كلهم قد سلام غير مصروف إذا لم تسلم حلم السنة الأولى يساق إلى حليمة بنت عبد الله قصر بناس بن آخر شخص الحاج مرنا وأم فروة أما أم أيمان خولة وشيماء هن الحادثات سمين قدر شيخ سيد مالنا وأم فروته أما أم أيمانة خولة وشيماء هن الحادثة صيب له بدا في ابتداء الأمر معجلة إلا عدل بدا في تاريخ سيد الحاج المالي لله عدل بدا في تالي شخص الحاج مالنا وأم فروة أما أم أيمن حولات وشيباه هن الحافظات سنت بجارى نزاع كبير في مفعلتي وبالعالمات خص القدر شيخ الحجم وأم فروة أما أم أيمن حولة وشيماء هم العازلة تزيم فما ولا يحصى الذي لقيت فتاة سعد من الآيات شيخ سيد الحبيب وأم فرات بالمصطفى فما يعد ولا يحصى الذي لقيته فاتاة سعد من الآيات شمس العلم لنا وأم فروة فروة أما أم أيمن أيمن أولاد وشيباء نبي المصطفى آتانها سبقت ما ذاك عادتها وجاءت البدعة شاة الجدب شمس الحج مالنا وأم فروات أما أم أيمان خولة شجباء هن الآفدة نبي المصطفى شباب مغلام شب أبدا واليوم شر وعاد جدران شيخ سيد الحاج مالك شبابه مغلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكلام صبا وقدرات المشيئة فيها إن وأسرع في والوالد أعيان شوف سيد الحاج مالك شبابه مغلام شبابه واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم صلى في تكلم في طائف فصاحته في الأنبياء يرمي ويحيي أبصار شاف علي علينا شبابه مغلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر الكرم طبع من قبل عام كفرا كان ذا أدب إلا در أديب شفا شيخ سيد الحاج مالنا من قبل عامين السعي شاة في الشهود حليمة وقد سجد ولت شخص العدم من قبل عامين جفرا كان ذا آداب لله در أديب الجبل شكر بزانية الحمد لله رب وائب النعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوالدين يا سيد الحاج مالوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوائب النعم وبعد شامي الشهرين شق له صدر وفي البحث والإسراء شخص حجمنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوالدين محمد والشعرين شوق له صدر وفي البعث والإسراء شخص العجمل الحمد لله الحمد لله وتمت يمنى الآمين ينسى الذي فيه ختما غير شيخ سيد الحاج مالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ينتب وصدره ختمت يمنى الآمين فلم يخشى الذي فيه أتمنى غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله لأمي عام خمس رد سيدنا كردي قبل حين الشق سيد الحاج مالنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما لقنا يدعو ذاك آمنة لبئر مما تخاسي منه شيخ سيد الحاج مالنا الحمد لله الحمد لله أبدا تقلي عنا محمد المختار بنبي محمد البشير صليا يا إله واهي وجزيا أبدا عنا محمد sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Mbaye tabaarakallah waaye jërë ngeen jëf ñi nga ñi ngeen àndal ñëpp tafsir Hamid Wele yaakaar naa ñëpp bég nañ guddi tey gi yaakaar naa ne ñëpp seen xool tabaarakallahu tooy na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne daal maam sax seen xaaj ma radiallahu anhu jàngal nañu kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tabaarakallahu njaboot gi ñoom tamit way gi ñu koy way tax na nit ñi gëna sopp yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mëno dégg way yi te sa tiofel cofeel dolleekuur ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañ leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla gëna guddal fan yi yàlla na yàlla yokk wér gi mel tafsir hamid wala fa tabarakallah ñëpp bëgg nañ ñëpp kontaan nañ ci am daax yu am solo yi nga xamne al hadj abdou aziz ak ñi mu àndal yëkkat nañ ko fa tabarakallah wallahi ñëpp bëgg nañ li mo ëpp ay ndéwénelu milliard li wallahi wallahi masha allah joxe nga suukaru koor ci ramadan yaadi yi ñoomit joxe nañ ndéwénel ci julli julli gi macha allah ñaanal leen yàlla dolli leen sutura dolli leen kàttan may leen gudd fan yàlla yàggal leen ci suñu kanam ñoo xam ne bu ñu àddoo rek nit ñi dañuy bég ñu a ñu kontaan nañ xam naa dañuy daal di dugal rek nga xam mooy Alhaji Souleymane Ba mhm. moom it mu ñëwut parce que euh, bunt bii ñu doon way macha allah Euh, xëy na sama classe gi. Mhm. xamuñ lan la ci maam Cheikh Al Hadj Malick dox donte ne neex na ci ñun. Mhm. Euh, yokk na suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. waaye pour ñu xam ko nag ki ñu koy xamal mooy Al Hadj Souleymane Ba. waaye bala ma koy jox man bëgg naa laaj benn laaj. DG ci réew mi la wooree. ah gis naa ko gis. ah man de koor gi yëpp daa mel ni. dafa mel ni <laughs> ah, wala wala daa dafa mel ni guddi lay. wala daa bokk ci ñi ñi ñi ñi ñi nu ko xadd tëri moom daal guddi lay woor keroog laaj naa ko. ah guddi lay woor guddi lay woor. Ah, guddi lay woor de. <laughs> fa tabaarakallah waaye faw njoolu njool Fuuta xamal ñu kon mooy yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam am na solo waaye il faut nga wax ñu kan mooy yonent bi. tabaarakallah kon Alxaaj Souleymane ba ñu bàyyi la kàddu gi. macha allah tabaarakallah am na lu daan am de. محمد هو سيدنا ينن فالعيز لنا بإجابته ينن فمحمدنا هو سيدنا فالعيز لنا لإجابته جن الأصوح بدا بمتلعته والليل نجا من وافته ين الفاقد رسلا فضلا وعلا أهدى سبلا لضلالته عينا فالعز لنا ينتي بك نزول كرمي أي كنز الكرمي نبي كنز كرمي نبي كنز كرمي يا رسول الله كنز الكرم يا رسول الله كنز الكرم يا رسول الله كنز الكرم يا حبيب الله كنز الكرم

jolu jol fuuta ko wiri kenn zul karami ey seyduna muhammad kenn zul karami mamadu lamin kenn zul karami yaa nu koy wiri kenn zul karami jolu jol fuuta sulay kenn zul karami ewaay seyduna

سيد الورى كنز الكرم محمد الأمين كنز الكرم محمد كنز الكرم مولى نعمي هادي الأمم لشريعته أزكى ونسبي أعلى الحسبي كل العربي وفي خدمته ساتي شجرة نطق الحجرة شوق القمر بإشارة يا جبريل أتى أي جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى كسب ينن جبريل أتى محمد لمن جبريل أتى سيدنا Muhammad Jibril ata ku sopp Yàlla ay waay Jibril ata Jibril Jibril Jibril ata Jibril ay Jibril ata Jibril Jibril سليمان كيفير الجبريل سليمان جول جول فوت جبريل جبريل أيوة جبريل أتى يا جبريل لعت ليلة الأسرى ورب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا ينفع العز لنا أي لإجابة نالا بنا لا شرفا والله عفا عما سلفا من أمتي لا شرفا من سلفا من أمتي ينتي بنا لا شرفا والله أفنت عما زنف من أمتي على شرفا والله عفا عما سلف من أمتي النبي اه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين سيد احمد جزاكم الله خيرا يالنا يالا دغرل لين اللهم امين يالا دفال لين توفيق امين ناخ واخ دغ يالا نيوم بايدا غور عبد العزيز ليغا خامتيني بي موم نان في جيتال الله دانكا رك مون نانكو دويلو الله يديسال وا دانكا رك ناخ تبارك الله غينا با نيو نيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نيو نيو وا ادنا ديال نيو بي نك di ko teg ki nga xamante ni bii mooy alxalifa Cheikh Seydi Aboubacar si bu maam Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydi Hadj Malick ah di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi yàlla yàggal ko suñu kanam baqaauhu baqaaun lana baqaauhu baqaaun lil majdi mm-hmm. baqaauhu baqaaun lil karami بقاؤه بقاء للنصر بقاؤه بقاء للحضرة ko ñaanal yàlla yal na ko fi yàlla yàggal dolli ko defal wér dolli fi yàggal rakkam ji di doomi bàyyam bi xamante ni tabaarakallaahu cofeel gum ko ëmbal kawe na ba fu ma toll ni sama sëriñ moo ma jàngal alquran kooku mooy sëriñ Maodo Sy ibnu Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Aziz Dabakh yal na yàlla yàggal leen fi lool lool lool lool lool ak seen rakk jee ca daara ji sama sëriñ شيخ سيدي أبو بكر سي ابن شيخ سيد الحاج عبد العزيز دبا الذي فعل بي ما فعل بي فسرت به من سرت ذلك الله محال يا نكو في على يغل بجاي المصطفى با بكر نيوغي لي نيو جيرجيف شيخ حامد ولي لي نيو بي دي لا نيانال يالا دي نيو تبارك الله خليفه جنرال يي نيك سي سنغال ييب دي دم كير مام شيخ عمر فوتي دي فا نيو تشينو بشير تال تبارك الله ديكو نيانال يالا يالنا يالا يغل تخاوايام يالا دوليكو دغرل تبارك الله نيوم ماك ني جارا نانان ياغ لاج فيك نا نيوم سين ياغ في سيكوريتي لا تي خيت مي سيكوريتي لا تي ريو مي سيكوريتي لا تي طريقه مي نا ماك مو خامن تاني الى الله مساءه وصباحه الى الله يمسي ويصبح كوكو ورنا نكو نانال يالا نا نيغا خامني امو نيو جوتو يينو تي يالا فنان تي يالا ماك ما فنان تي يالا يوبالي ريجيو te mag ñooñu ci lañu bokk yàlla na leen yàlla bàyyi fii ñu yàgg lool tabaarakallahu di nuyu nag tabaarakallahu waa asfiyaay di nuyu président maam Omar Ndiaye dama koy wax ni yow moom tabarkala buñ dajee tuyaawoon faaw ñu jox la loxo ni la sëriñ bi ñaanal ñu sëñ Babacar a jur sa wayjur bu jigéen mhm. buñ dajee ñu ni la ah fu ñuy dal ndax yaay borom yang yang yaay borom <laughs> yaay sutu buur ba jolof bu ñu dajee fii ci asfiya yi nag yaay directeur asfiya yi ci Ndakaaru ah. ah. loolu tawfiqul ilaahi yàlla yàlla moo yàlla la soob mu dox doxale ko noonu tey nag xam naa ne ah ñu ñëw ci ndéewénalu korite gi <laughs> ndéewénalu korite gi di nuyu imaam Adama ba tabarakallahu moom dafa ñëwoon seetaan si rek faf gaa yi boole ko ci jotaay bi ci la bokk mu ñëw nekkate ci la bokk wala imaam tabarakallahu Sidi Ahmad Habib yàlla leen yàlla fay yàlla dëggal seen taxaw Sidi Mahamadul Moustapha Ousmane ku féetum xay ku féetum charran leen jàmm ma ne mhm. wax dëgg yàlla lan laay wax sax laa xamul ماذا أقول بأي لسان أتكلم بأي فكرة أستنبت وبأي شفتين أنطق نلا كوي ديف جار في ñu dégg ko wa qad qara wa qad qara ma qara wa qara man qara wallahi ah jàng nañ li ñu jàng mhm. waaye wa qara ñu berndeel al azan nopp ya berndeel nañ leen ci tagg sidna Muhammad sallallahu alayhi wa ñu wayoon yamoon ci way yu sëkk sëkk sëkk sëkk waa Sénégal teewlu ko déglu ko mhm. mën na leen a pilote bañ egg ci seen borom nitu yàlla bu mag ana aarifu billahi ana aalimu taqiyu mhm. al bahru maam alaaji Malick Guèye bii tafsir alquran ci zawiya Seydi Haaji Malick nga xamante ni bii lu yàgg ci nit kër nitu yàlla laa wax lu fa yàgg rek xamal yàgg na dëgg la maam alaaji Malick Gaye Baye alaaji Malick Gaye maam Abdoul da baax moo ko indi woon muy tafsir alquran ci Tiwaawan lu mu gàtt-gàtt tafsir na ko fukki at ci kanamam wala lu ko jege ba tay ji tay tay tay jii tay tay tafsir na mm-hmm. nga xam ni loolu tawfiqun min allahi yàlla na ko fi yàlla yàgga dafay wax ne xilaasu zahab bu ñu ko wayee rek way xam ni amul baaral amul dara ñu way ko rek ngir yàlla hmm. mën naa jàpp xolu doomu aadama yi di ko tarbiya ba mu egg ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi yegg ci yàlla soriwul soriwul hmm. déedéet soriwul fexeel ba ci Mustafa jaa rajulun mm-hmm. inda aarifi billahi qaiman wa qaala hmm. uridu al wusula ila wa urida maarifata allahi mu ne ko hal taarafta bi rasulillahi mu ne ko la mu ne ko idhab watlubi lmaarifata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dama ma a egg ci yàlla ma bëgg a xam yàlla mu ne ko ndax góorgóorlu nga ba xam kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi mu ne ko déedéet mu ne ko tekkal say bagage bala ngay nooy yàlla demal nga xam waa ji allahu akbar demal nga xam kanay Mustafa nee na ba mu demee ba xam Moustapha ñëw taxaw ci kanamu góor gi góor gi ni ko dangaa bëgg xam yàlla mu ni ko déet xataa raftu bi rabbi lamma taaraftu bi rasulillahi dama doon ñëw pour ku ma xamal yàlla faf naa ko xam ba ma xamee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yëguloo loolu benn sécurité am yàlla Moustapha qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni bilmahabati wal iqtidai wa taadimi wal imtisaali yuhibbukumullah waaw waaw dëggaloo xul ah, ah, Moustapha yàlla ne ko waxal gaa yi ne leen buñ bëggee ci man nañ ñëw ci yow buñ bëggee jot ci man nañ jaar ci yow in kuntum tuhibbuna allah mhm. waxul fattabiullah waaye fattabiuni man mi yàlla yónni bu ngeen ko defee ne yuhibbukumullahu li mahabbatikum iyaaya sallallahu alayhi wa sallam dëggoo loolu waa koy ah fattabi'uni yuhibbukumullah bu ngeen ko bëggee nag pour ngeen topp Seydina Muhammad ak xam yàlla fattabi'uni bil iqtidaa waaw kay fattabi'uni bil imtisaali topp Mustafa topp Mustafa iqtidaan bi wa tashabbuhan bihi waqtifaan bi asaari Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yëgoo loolu bu ngeen ko defee nag yuhibbukumullah allahu akbar ah maa la ko wax moo tax araab سيدنا محمد ci Seydina Muhammad ku ñu wax ala قعدت عند الكعبة عند ضريح النبي المصطفى فدخل أعرابي فجثى بين يدي المصطفى عند قبره وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك fa saafaru llaha wastaafara lahum rasulu la wajadu llah tawaaban rahima laqad jituka alyawma ya rasula allahi mustashfian mustaghfiran bika ila rabbika allahu akbar mu ne xam nga lu xew li ma doon seeti soriwul sax damaa ñëw rek dégg ni yàlla nee na bu ngeen dikkoon ngeen jéggalu yàlla ngeen ñëw ci Musaa mu jéggalu leen yàlla pele deel leen ci kanamu yàlla yàlla jéggal leen mu ne ko leen na ma fi indi nag jituka mustash mustaghfiran ila rabbi bi wasitatika wa mustashfian ila rabbi bi wasitatika maa ngi sàkk ku ma dimbali maa ngi sàkk ku ma xettali ci sama kanamu borom waaye bi wasitatika ndax yàlla yow la ñu booleel ما أرسل من رسول الله ليطاع من رسول الله يا قال هم ما أرسلنا رسولا دي واي من من جوجو زايد لا واي زايد جوجو لتعميم لا من رسول دي بن بن بن بن يونت لم يرسل الله رسولا وما خلق رسولا إلا ليطاع ويا الطاعة بالإذن صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسلو لولو من أطاع مطيعا بغير إذن فما هو إلا في في في تيه الدلالة والهلاك dégloo lool ki ngay topp dafay fekk mu am ndigal moo tax bur gi wax ne yutaaw bil wilayati walaw kaana waliyan bil izni wa yutaaw annabiyu bil izni wa kullu mutaain bil wilayati aw bil bil izni min al wilayati aw bi iznin min an nubuwati mursalu allahu akbar Moustapha fi des rasidu xaaj Malik ubbil ñu yëf yi damay wax ne waxtaane Moustapha sallallahu alayhi wa sallam gàmmu ci Seydina Muhammad xam nga la na ko waral bësru بزر بزرة أيوه. المحبة في قلوب المؤمنين الله أكبر دي يقول مانام مصطفى بسم الله عليه بغ مصطفى لما ولو جيل داف كو موي بيب دوغو بيب دوغو فخي با جمر كو سي سيني خولي مو جيبي بو جيبي نك بو جيبي نك كو خامتيني بيوم القيامه ديكنا من بويس يوم القيام وفي قلبي مثقال ذره من محبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه دي allahu akbar gis nga yàlla xool bu mu xool inspecté ko gis ci walaw daratan wala lu tolloog pépp dugub ci bëgg mu saxaa yàlla du xam nan lay def du xam nan la nan lay seppee ci biir xol bi bëgg gi nga bëgg waaye am ji ba pare di dugal safara la ilaha wallahi allahu akbar dégg nga sëñ wujudi gis nga boo naanee comprimé waaw ni muy tasaaroo ci sa biir yaram ba yaram yëpp ànd ak sawar boo bëggee mu safaa mu tàbbal ci sa xool day mel ni comprimé boo tàbbal ci sa xool sa cër yëpp wëlbati ko bëgg Seydina Muhammad yàlla na du seet bi cër bi bëgg ci biir cër bi bëgg di ko fa xañ mu téye mu tee di ko téye dugg fa mu bëgg te kat ko bëgg ka mu bëgg di nga dugg fa mu bëgg te ki mu bëgg mooy mu safa wajud yotibitu so wadi nag Seydi Haaji Malick loolu la xam moo tax mu mu mu def ko yitte. fexe ba mu nekk lu yomb lu neex lu accessible. ñu koy woy ngay ngay kontaan. di kontaan di kontaan ba mu tàbbal ci yow bëgg Moustapha. sallallahu alayhi wa sallam xam ne day gis ñu Abdou Aziz di way Moustapha muy jooy. waaw xamul lu muy firi de. dëgg la de. ah waaw bu yaakaar ni baat bu neex la. Ah. déedéet. ma ngay dégg beneen baat bu neex buy way te déglu الله اكبر ما لا بكير بي دو بكير بي لا تي بير بكير با بكير والله الله اكبر دغ دغ ما بكير بي دو لين لاي جام لول دو بكير بي بكير با نغا تي بير بكير با والله واي واي وين لاي واي نك غي دغ واي وا دو يف يا لا تي بير واي وا موي يف يا لا تي بير واي وا موي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر واجني نفسي الفداء لقبر لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم yëgooloo mu ne waxuma sax man waxuma sax yow waaye fii ñu la denc yow Moustapha nga xam ne sa jëmm ji fi denc waaye mu Moustapha ruuxaani su na bi Moustapha kenn du ko tëj ci bërëb kenn du ko ndax ndax moom nuru ak waa ni mu te kaw yi na kooku mala tabi kaw na kal xaayita mhm. koo xamante ni mala al koo xamante ni fees na al kaw na wala mu kaw wanaati lépp nag kenn mënu ko def ci benn bërëb góor googu la Cheikh Seydou Hadj Malick radiyallahu taala fexe ba ñu ba ñu ba ñu mën di dégg sax boobu waaw wax naa ni gis nga ñoom Abdoul Aziz bi ñuy way sànq billaahi damaa teewlu ba yàgg ma ni Moustapha ku amoon ay bët wala nga mën a dégg wala sa ruux di waxanteeg yow dina la Moustapha ñëw na fi léegi maa la ko wax allahu akbar teewlu billaahi ma ne ku am teewlu nga dégloo be ause nay ruuxin wa qalbin wa atifatin di nga xam ne Moustapha teew na bi ñu way rasulallah Alaaji Malick Sy si góor kenn moom xam nga Maodo buñ jëloon buñ jëloon buñ jëloon sax xam-xam teg na jël jël wilaay teg na le waaye nite gi Maodo nite gi ak maandu jar na topp laa la waaw waaw yëguloon ne waa Makkatal Mukarram bu yàlla yéexoon wax Moustapha yaay waaj ñu ko yaay waaj dëgg la maa ko wax walaw laa na laa arsala wajtaba muhammadan rasula lajtabaahu awlu makkata rasula ولكن الله اجتباه واختاره رسولا فحسدوه الله اكبر دغول لولو اوكي نيوم غيسنا نيو لوتاخ نيو خامني واجي واجي دغلا واي بي يالا نيغول واجي واجي نيوم نينا نيو واجي واجي نعم. واي بي يالا واجي لي واجي ني واجي موي واجي ني بوركوا يالا ني واجي موي واجي سي دو ودوني تفوت على حقيقتي وكل ما فيهم وفي ضمائرهم اعتقد بانه هو هو الله اكبر sallallahu alayhi wa sallam kooku nag la Maodo. Seydi Hadji Malick. du nu jàngal. yàlla leen yàlla fay. amiin ni ngeen di def ci xolu jaam bi. Mhm. idxaalu sururi. Mhm. fi qalbil mu'min. Mhm. loolu ibaada la. waaye idxaalu sururin. wa ziyaadatu mahabbatin wa shawqin واشتياق وهيمان في قلب المحب للمصطفى من اعظم العباده الله اكبر. يلا يلا سيدنا كمل ورا الله. لما هذا من فضل ما وفاخرين يا متوسولة دي. دنيا نقد كان خما قال ما دي نبي الله. صلى الله عليه اكبر. خمنا بوجه مدحوك فكسك كسك كسك كسك كراول. واي فمو جمتك. fi madu jëm madu fi mu jëm a tax xam nga madu min maanaa in madaxa ila ittasa in madaxa al ardu ila tasa bokkul ak bokkul ak sanaaw a sanaaw mooy madaxan mukarraran moo doon mu ni naru mu sanaan mu sabaa baadama ata kon madaxan mukarrara la waaye eey bokkul ak li nga xamante nag madaxanal musafa mas na mas na waaw Maodo waaw Maodo Maodo li gars yi waxoon nag ni nga wax bokkul ah. ni nga koy waxee bokkul ni ko gars yi wax mu ne xam nga lu tax ma def ko ah. du pour yaa mën a wax du pour yaa mën a way du pour yaa bëri xam-xam mu ne ah. ko naan mu ne laamu taalil la li yaxfira allahu akbar kay Maodo dañoo noppal day noppal xam nga li gars yi wut sax mën nga ko wut waaye doyoo ko li ko gars yi doyoo li gars yi wut mën nga koo waaw waaye doye woo ko li ko gaa yi doye. wa abdumu taalibin. men baadu. waaw Basiru Xaaji Maalik radiyallaahu taala anu kenn du moom. xanaa jaaxle nga de. allahu akbar nga dégg min ni baadu. war ngaa jaaxle min baadu min huruful jar. Cheikh Seydi Xaaji Maalik. radiyallaahu taala xam nga nga dégg min rek. waaw yaa ngi doon xar mu jar. ni baadi. mu ni déedéet min baadu. allahu akbar lu waral loolu. ah lu waral loolu. xam i jaru xaraf dafay am. Hmm. jaru idaafa dafay am. Hmm. jaru tawahum dafay am. Hmm. bu ñu jàng ca daal suñu lamiñ nag nee na ñett yi dajanañ ci bismillaahi bismi xarafa ko jar allah yi daafaa ko jar arrahmaani ak arrahimi tabia moo leen jar mm-hmm. Mm-hmm. yëgoo loolu ah, ah. ñëw di kadi la di ba xam nga naatu uh-huh. taabion lil man nekk ci arab yan kadi uh-huh. ladi uh-huh. fadi madi ñadi ñooñ foofu kay ñooñ waaw kay góor gi ne nag ara jar dafa ñëw li idaafati jaru tawahum jaru lekk ci xaam dégg loolu jar dana ñëw li mu jaawarati moo tax dëkkandoo jara seet xoolal xoolal ni rafaa kawe ñu xañ la ko ngir dëkkandoo ka anna abana fi afanini wa daqii kabiru unashin fii bijaadin muzammili muzammilu mooy naat ci kabiru jar nañ ko ngir dëkk nag fii bijaadi borom ibnu borom borom borom borom borom borom alaqaat borom ibnu ibnul kaysi ca soaraaw ba ka anna abana fi afanini wa daqii kabiru unashin fii bi jaajin muzammili muzammil la waroon wax waaye dëkk li ko yóbbi moo ko yóbbee ci lii muzammili est-ce que moo tax mu mu xafar moo tax mu jaar mu war mu xafar waaw dégg nga loolu jarul nekk ci xam wa in qiila ayu naasi asharru qabailan asharat kulaybin kulaybin la waa ilaa kulaybin bil akfil asaabiu تأثير حاجة من بعده الله أكبر موضوع وعبد المطلب من بعض mara déggul ki départ ak kan a egg. xoolal ki kan ñaata départ ak ñaata ak ñaata kenn tàggoo waaye ah. waaw. te kenn tàggoo. waaw. wa abdu mutalibin min baadu marra muy mufrad. waaw. Mhm. ilaa fadaati zuwarata zaatil majdi wal karami marra muy ñaar. fii benn la fee ñaar. nga naa la gis nga ceeb bu nekkee ceeb rek nga ci xam ak dugub maanaam ceebu jën bu nekkee ceeb ak jën rek nga ci xam xamoo ceeb nga ñoo xam ceeb maanaam ceeb ak yamuy àndal waaw <laughs> yaakaar ne ceeb jën da nga koy togg ak ceeb ak ceeb xamoo jën uh-huh. Maodo mu ni min baax min baax du mm-hmm. ginnaaw lan li waral baax du ji a wax ok wat moom bi naa an xayran in hadim tamalahu udifa naawiyan man adama قبل كغير بعد حسب أول وضون والجهات أيضا وعلو من تحت ومن علو نقول لورا من بعده لا إله إلا الله قال وهذا جرهم لورا آه. آه. اسكي تشيسي الحجم علي قلت له بنتو بيجي وهذا جرهم موكو موكو امبوزيتي من بعده اوكي وكان نازل نزل اذا اذا اجتمعوا bi ñu demee sa màkkatal mu karama boo demee damay ba ñu dugg foofu xanaa ñu maan ko doy waar xolal xolal xolal xolal wa biiru zamzama amrun tammaha hasanan is axraju waaw xolal bu nekkee ni ko Maodo waxee noonu la tëddee déglu rek de bu nekkee danga koo firi ni ko Maodo waxee rek kon kañ lay jot ci cër bi ba di ko fat is axraju waaw bañ ko génnee tamma hmm? déggoo de is axrajuhu bañ ko génnee waaw tamma ci la sakk loolu yenoon maanaam waaw boobu ñu génn ko par muy door sakk muy door sakk kon wa biru dam-dama amrun tamma kañ la def loolu hasadan id id axrajuhu wa siixatu maadin ñu jàng bayan dañu wax ni wa siixatu maadin di atin awradu li quwati asbaabi wa tafauli yaa ngi waxaale waxaale bi dëgër nga nga ni waa ji jënd na وخالب دغر غنا جيننا واو كاي ايز اخرجوه ايز باغا خامتاني اخرجوه دوغو نان ني فار فورس ني ген وادي تم تلاكو كاست واو كاي الله واي انا بي افير بي دمي وار غور جي دال دي جينترو يا في تيبتين مدنونتين وغماجين لو يبنا من أجوبة الحكم لو تخو ما جوب لي تخ من بعرو جي تلا جمك جو عبد المطلب وكان ناقل نزرين mu ni yàlla maa ngi wax ni yow ma bu ñii niñ ma sonale ak bi ñu koy séddale bañ egg ci is naa ni lil bayti summa su naa ni lii walakum ay daan fanaati ak war a sanami bi mu demee wax dëgg la xaasal xaasal la ñu nag baytullahi summa tama bakaani shaybata min duuni shiraaki mi bi mu demee ba yëf yi doy waar nag ba ñu paree ca atte boobu góor gi daal ni xam nga lu xew yàlla maa ngi lay ñaan li ma néew dooma tax waa dëkk bi yàpp ma jaay doole gi may jaay doole maa ngi lay ñaan soo ma mayee fukk ma lay benn. bi mu amee fukk ya. fàtte na ni waxoon na ko yàlla. sama rajo maa ngi ne waxaat takarara. baada nayli ay baada maanaa la. waa lan moo xew. lan moo doon répété ru'yatu man yaqul afi ladi ata wa tadimi fakta ma xamman

yaquulu qawlan mhm. boo ko la kaala mhm. yaqiilu mhm. kaylu la tan waaw ah, bokkuñu déedéet boo ko la kalaa yaqli kilan kilan wala ma ca maqaamatu xarir waqil naa waqaala cheikhu te yëpp xaaf ak laam la de waaw kay waqil naa waqaala cheikhu boo ko la xakaan xaaris ibnu hamaam qaala لله دار مجيب قال بن بوك نيك سما رونو في ما لا حارس بن حمام تيب ньо بوك نين بند بوك نين ماسي هاكا حارس بن حمام قال سمرت بالكوفه في ليله ادم هذا لونين وخمرها كتاويل من لجين معروف قد انغضوا بلبان البيان وحصحبوا على صعبان ذيل النسيان ما فيهم علما يحفظ عنه ولا يتحفظ منه ولا يميل الرفيق اليه ولا يميل عنه فاستهوان السمر الى ان غرب القمر فلما روق قيل البهيم ولم يبق الا التهويم سمعنا من الباب نقة مستنبئا ثم تردها سكن مستقيم وقلنا من الملم في ليله ملهم فبرد عليه جوزر عليه شوزر وقال déggoo من بعده من بعده من بعده كم من min baadu. min amin bi harf jar la. waye baadu ji lu tax amul droit mënu ko def min baadu. Mhm. min baadi parce que parce que dafa amul idafa mhm. bu ne min baadi ma hadasa mhm. dina min baadi. min baadi hissati dina wax. min baadi min baadi ma. lam ca wara la kum ko ñewul ñëwul min baadu. allahu akbar. marra. rombul kenn dafa jëm. Ah. waaw. Euh, marra du مردك من نجم إلى فدار زورتا إلى حرف جر بمعنى انتهاء الغاية بقول أن المجاوزة بقول باء الظرفية ديرت بقول ثم للتراخي والفاء بينهما تفاوت نقولوا من بعد مر إلى فدار زورتا كن مر قصد متوجها إلى فدار زورتا كان نويكوك ذات المجد وذات الكرم من ذات المجد والكرم الله أكبر déggoo waaw kay. muy zaatil ma jiwal karam yi. waaw kay. zaatil ma ji hiya zaatil ma ji ko kan la faraati suurati ki muy bëgg tudd na kan la zaatil ma ji wal karam mooy kan. tudd ko ci biir bi ci topp de mara alam raatin. Hmm. <laughs> maa ngi la koy wax ca kanam mara alam raatin ki leen tax a jóg ki ñu dajeel lam leen wax bokkul ak la leen taxoon a jóg. la ilaha illallah. allahu akbar. Abdul Mutalib. Hmm. mu ànd ak Abdullahi. jëm ci. di wutal Abdoulaye soxna ginnaaw bi xew-xew bi. Mhm. ndax duñ ko bëggoon rey. waaw biñ ko bëggoon rey. Mhm. yàlla def. inil xidaaxu. Mhm. ala mahbubikum xarajat. wasiidoo wasiidoo wasiidoo duna maasa. Seydi Hadji Malick góor gi billaahi moo war a yàlla ko yàlla fayal. xarajat. wasiidoo Jesus. إن القباء على وعلى محبوبكم خرج خرج زيد وزيد زيد دون ما ساء يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمد مرنا المختار في القدم kon nag boo bëggee dégg judo jooju da ngay dellu ci xaaral fa kam diyatu sëñ ma sëñ Pape Makhtar Kébé ñu ngi koy ziar. ndeysaan xaalaat sëñ Abdoul Aziz yaa ngi fàttali ko suñu gàmm ja keroog ca Banjul sëñ Pape Makhtar day sawar loo gëstukat ndeysaan fa kam diyatun kuntum taduuna biha قالوا لها عشرة الآبالي قال فكم دية كم دية نقول لك وراء كم كان له إنك خبرية ها لأنك استفهامية ها كم دفعينيو خبرية دفعينيو استفهامية وأي كم دي دي استفهامية بقول أم دية ها اوكي هم هم قاعد افكر ما تشوف مالك dafa am da dafa lay wax ni min wudu dégg nga di wudu fat in wadam mu ni wa saakinu nag kam kon kam jooju dañ koy binaal mu nekk xabar ma naa nekk mubtada diyatun kuntum taduna kam kam diyatun tu diyatun kuntum taduna kam kam diyatun kuntum taduna la ilaha illallah li naan joxe ci diya kam ñaata la wala nga ne kam nga binaal ko ala sukku ala mu nekk fii mahali mubtadaan nga ne kam diyatun di xabaram kon tubtaduuna biha xaalu laha ashatu abali min naami loolu moo ne xaaral lahum farjiu lil ahli li ma bëgg a wax nag inil qidaahu ala mahjibikum mahbubikum xarajat ziidoo bu ngeen defee fukk mu yokk mu dal ci abdullahi dolliwaat leen ngeen defaat fukk mu dolli bu ngeen defaat fukk dolli moo doon mu ni duuna maa sa ma dàq ci ginaar wax sama soxla waaw yow mi defoon ci jumaa ji waaw zido zido <laughs> waaw waaw waaw nañ zido de nañ nañ nañ doole jaayante yow mi defoon ci ci bu ci woote bu njëkk ba zido bu nekk dellu waata nga zido fa zido wa zido ba keroog ñuy pare dina maasaabi bu leen yokkat <laughs> الله اكبر ان القداح على محمد مخرجات زيدوا فزيدوا وزيدوا دون ما سامي حتى اذا ما عليها السم قد خرجت فلتنحروها بننكا شيخ عبد العزيز حتى اذا ما عليها السم قد خرجت فلتنحروها فان الله ذو الكرم حتى إذا ما عليها السهم قد خرجت كون عليها جوجو ديلو سي ديه جا قال تنف فلتنحروا الدية مور الحاج واو قل فلتنحروا نين رين ني رين دي مني ها ديه جا واو تيميري جيلم ne ها موي بن téeméeri جوي دا ah, waxul xuul na mu ne haa <laughs> kon ak diyatu lay waxal wallahi <laughs> ah <laughs> fa inna yàlla zul karami ku toroxlu ci moom mu jéggal la fa anta xam nga xam nga Cheikh ah, Cheikh Abdoul Aziz maam Maodo xam yàlla gi da cee boole xàmmee turu yàlla xam yàlla gi da da boole xàmmee turu yàlla yi hmm. Babacar da ngaa sañse ah, waaye yëri bii ci kaw boo xàmmee wuloon ba def ko ci suuf waaw def ci suuf bi ci kaw wax nga dëgg du sotti du sotti de te du baax jëkk ah xam nga ni bassin la trois ah. waaye xammee ne grand mooy ne ci biti petit mbubu ne ci biir boo jëloon mbub bi ci biir bi ci teg ko ci kaw bi ci biir korom da yaakaar ne soog a korom ah fa inna laazul karami loolu borom bayaan di wax ne li kilimatin ma kilimatun maqaamu laysa laha ma misliha yuraamu wa laysa maa yuxaatabu zakiyu bi kama yuxaatabu lxabiyu mhm. déggoo loolu maanaam moo doo même wax yàlla buy wax sax ci boppam yenn saa yi nga gis yàlla jàkkaarloog tur yàlla tànn tur yàlla bii lu tax mu tànn bii dafa am lu xew arrahmaan alamal quran bu ne woon alqahaaru alamal quran kenn du jàng aljabbaaru alamal quran kenn du ko fa xaar almuntaqimu kenn du ko fa xaar dëgg de maa la ko wax ku soxor ki moo jàngal ah. élèves yi dañuy daw ah xale jàmbaar ku mën a dóoree mooy jàngale tey ah. day metti ah, ah. jabbaaru kii mbugalaate mooy muntaqimu kii mbugalaate mooy jàngale kenn du ko fakaar waaye arrahmaanu ku bëri yërmande mooy jàngale tey gars yi am yéene xel mu daal dem jàng mu ne allama alquran ndeysaan yàlla xàmme ne ويا من عنده الفتح والإحسان والمنصور فرد على الابن شكر والدين ومولى والد البر يا أستاذ غرصف ما يمنانا يا نجل عثمان يا سعد المريد ويا من عنده النجوم والإحسان والجود فرد على الابن شكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ من منصرنا يا نجلا وزمانا يا صاحب المريد ويا عند النجوم والإحسان والجود شكر الوالدين أهم أمام غرسف ما يمنان في كل يوم الله نعلم يذكرنا من حكمة منك في دار ترشيده وراء ذلك الحج مالك يا مولاي والد المقبول مرسف ما يمنى ألبستني بي قاسي ستري الزمن خضرا كأنية للأقران داود فرض على الابن شكر والدين وامام والد البر يا قرص فما يمنان كل الإشارات نلصار كيف ما ليلي شاكم به طاب العلوم ترون كل الإزارات صارت كالنار كيف ما ليلي شاكم به طاب العلوم مترون خرش عبد العزيز قلناه بإسوار بخيوينك ba ñu reen di jëleem ya ah Moussa Wéa bu ko defee ne ba mu ko reyee nee na ko nit ñeeg njaay àll yeeg amul cere weñ sax kenn amul droit dàq ko waaw kay ndax yëfi yàlla nag lépp lu yàlla moom am nga ci wàll te diye ji yëfi yàlla mhm. moo tax weñ sax kenn amul droit di lekk ci ndawal nga keroog weñ takk di nga dàq ko amul dàq muus amul dàq musawiya naas wal awxaash ñëpp ci mujj yam ndax laan amrullaahi li ahlillaahi wa kullu maxluqin min ahlillaahi wa fii taxta mulkillaahi wa fii qabdati ljabaari déggoo ma wax la ne ma ba sol si xaaj maa ngi na fa inna allaha zul karami lu tax muy inna allaha ndax yàlla bi nga xamante ni alladi lahu maa fi samawaat wa maa fi ardi soxlawul yëfi kenn dëgg la déggoo loolu bëri na ko taxaw di atte gis na avantage wala mu inconvénient waaye yàlla moom lahu maa fi sama war maa fi ardi li ci kaw ak li ci biir li keneen yoral keneen yorul moo ko moo ko jox te da koy nangu bés zul karami kon marra ala mraatin nag min baadu ji abdul aziz loolu ko loolu ko waral waaye marra ala mraatin tudaa hiya bi fatimatin tabagi hiya almamala ilayha wa hiya lam tudami مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي هي الممال إليها waaye wax yëram turam sëñ Hadj Malick ni sidna Abdoulaye bu mu génnee ànd ak baayam baayam Abdoul Moutalib marra ala mar'atin romb nañ benn soxna waa si lu tax nga ni imra'atin xanaa na moo tudd mu ne tuddaa def na ko wa bi Fatimatin Fatima la tudd waaw si lan moo tax nga tudd ndaw si te taxul leen a jóg mu ne tabari hiya waaw maanaa kaana tabari mu ne almamaala ilaa ayna mu ne ilayha wagi yeneen turam wax naa la ba taay nii mii mi Alaaji Malick bii nee naa la mii mi ya Mam Maodo bii cere ju wow la bala ngay xam nu mu toll nga sotti nga def ci ndox bu tàng bilaay bala ngay xam nu mu toll laa ne nga sin ko wallaahi waaw maa la wax loolu moytu ko lump noonu maa la ko wax mara ñoom ñaar alamra ak tiim ci benn soxna nu mu tudd si mu ni tudd a def nañ ko way bi Fatima tin xam nga lu tax waxul hiya Fatima tun mu ni ti tudd a dañ ko woowe beneen tur moo tax allah ok nga bu ne woon wa hiya Fatima tun mu ni déedéet tudd a def nañ ko woowe bi Fatima tin loolu lañ koy woowee am na neneen nuñ koy woowee xam nga beneen tur bi lan la moo wa Ruqayqatu bintu Nawfal am na ñu وكي جعلني ورقة تحكي ما رواهنا وقال أنا موسى موسى كم كان ورقة لك خم كان لون gisaane kat la woon seet kat la woon ndaw si di sëram yàgg dégg warqata bu gisaanee daan ne am na koy waaj a ñëw am na yonent bi waaj a ñëw wooy juróom toll na ci 18 ans war na ànd ak baayam dem wuti soxna jamono ji lay war a doon ndaw si génn mbedd moomu jaar di xool di xool di xool waaye bu mu gisee góor goo xam ne nuroo na góor ñi te moo dàq góor ñi moo dàq jigéen ñi te nee naa la góor bu ko jigéen ña nobee góor ña dee nañ billaahi góor laa ne bu ko góor déggal góor waaw Maodo ngay dem Abdoulaye ngay dem dafa mel ni Maodo dafa ànd ak Abdoulaye ak baayam topp seen ginnaaw yore caméra def reportage déggal góor gi dafa mel ni dafa ànd ak Abdoulaye topp Abdoulaye ak kan uh-huh. baayam uh-huh. yore caméra topp seen def reportage tabri ma maala ilayha turami tabri ma ngay sàkku al mamaala tabri xam nga xam nga xam nga waraykatu wala fatimatu bintu munya dafa gis abdoulaye an ak leeru moustapha sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ko ñoo góor gi ma jëm a jóg ci Tiwaawan wax bu gisee taalibe yi ne ci daara daan leen maytu leen xale yi da ngeen leen di xeeñ mbuuraake ah day wax maytu leen xale yi da ngeen leen di xale yu jigéen yi da ngeen leen di xeeñ mbuuraake ñu ne ko loolu mu ni muuraake ni nga xam ni néeg bu mu nekk boo fa duggee xam ni ma nga fa waaw leeru bu nekkee ci yow boo leen rombee ñu xam ni mi ci yow la ilaha ma maa la ilayha xoolal wahiya bi jamaaliha wa haybatiha wa maaliha lam turabi déggal xam nga xam nga gàntu ku ñaaw yomb na. wallaahi yomb yorul yomb na. waaye gàntu jekk ta ba pare jekk moo yomb. waaw nga dëgg jekk ta ba pare jekk. voilà waaw waaw waaw yéen trop bi. مستبينا مستبينا الحرام ظل ما تدونه إلا لا يا إلا مستبينا مستبينا أما الحرام ظل ما تدونه واستبينا واستبينا فكيف بالأمر الذي تبغينا يحمي الكريم عرضه ودينه ودينه أما الحرام فالممات دون ممات دونه حل لا حل فاستبينا واستبينا كيف بالأمر الذي تبغينا نواه الكريم عرضه ودينه أما الحرام فالممات دونه والحل لا يحل فاستبينه وكيف بالأمر الذي تبغي نوارا يحمي الكريم عرضه ودينه ما لا أرى مصر ما تدونه أمر الذي تبغي نواه فكيف بالأمر الذي تبغي نواه تبغي فكيف بالأمر الذي تبغي نواه تبغي نواه

ila fataati suwarata naatil majdi li koy yi sayra sadfan li durratihi aminatan ba léegi waxul nu mu tudd dem na daal ci doomu zuhra ngir mu nekk topp na topp topp topp topp ba yàgg nga ñëw ci ñeenteelu bayit ba xam nga ba mu ne waaw Maodo lu tax mu doon dem ci sayratuna amina mu ne lu koy yi lu koy yu sayra ndax mu ne aminatan ñu ko waaw amina moomu lu tax kii yor ay bagaasam jekk jak jekku àdduna di sàkku abdoulaye abdoulaye bañ lu waral loolu mooy yëlam turam yi gis nga boo amee faay rek ki la taxul a jóg taxul boo amee faay da fa nga jëm fa nga jëm waaw boo amee faay da fii la gaa yi jëm te jëmoo fa moom la fa tax a jëm abdoulaye xam nga lu xew a foofu te itam kat ndaw si di woo abdoulaye lépp luy tax ñu topp ci ginnaaw nit ma ngi ca moom mm. waaw jekk na jekku na maa la ko wax ah waaye waxiya ànd ak jekk na ànd ak jekku na ànd ak jag na jagle na lam tura bi taxu leen a jóg lan moo xew li koy yu sara li koy yu sayra sod fan gis nga boo xasee xam li nga yor dangay xam fi nga koy def waaw boo xamee valeur bi ku paree bu sa bopp mhm. da war a toog waaw <laughs> Abdoul Aziz ma ku ko ci sa bopp. waaw war a toog. <laughs> waaw toog ba pare. <laughs> booy dem marché te xamoo looy toog. waaw taabal bu ne di nga fa taxaw. maa ngi dëgg de. <laughs> ngay waaye di. boo génnee sa dem ba marché te xamoo loo bëgg a toog. da dem marché jën taxawaalu. dem marché ndawal taxawaalu. dem marché ginaar taxawaalu dem marché keccax taxawaalu. boo defu naan booy wàññeeku day fekk marché bi tas nga togg dama daa fam. maa fi waaw kay li kay li kay yu sayir asar faani li du rat yi xam nga lu xew aminatan naqiyat an saayiri tuhami baat bu am solo ngo naqiyat moom sayyidatuna amina an saayiri tuhami est-ce que Cheikh Abdoul daa góor léegi-léeg nga gis ku gàddu koppar fooram bu foor def sa yu foor gis benn xale bëgg ko waaye dugg ci koñ bi am ku mu waxanteel tax koo wàññeeku bilaay ma ne bëri na ko dugg ci koñ gàddu ko parfois def ca yu fort as ndaw tax koo jóg mu dugg ca koñ ba am ku mu dajeel laaj ko ca ndaw sa mu wax ko ndekete yoo ndekete yoo ndekete yoo moom ndaw sax nakate yoo ndaw sax nee mu nekkee ci koñ ba baaxul waaye sayyidatuna Aminatu na mu nekkee ci koñ ba moo tax Abdoulaye ba mu ñëwee dëppul xam nga lu xew. waaw ah. maam Maodo mu ne naqiyan an saa'iri tuhami. tuhami. kenn neew ko fi yaa ko fi waxoon déedéet. kenn neewul yaa ko fi defoon déedéet. kenn du ni ko yow la fi woon déedéet moom bi ñu ko xoolee biir ak biir bi jamaaliha wa jalaalatiha naqiyat an saa'iri tuhami. waaye loolu mën na nekk nag. waa la ko wax. gis nga yàlla. buy tànn waayam da da koy tànnal. gis nga kulaaroota ju duwu leen moom àdduna ba dam te juddoo koo leen mënoo dàqante moom ci àdduna ba dam ko déedéet mënta nekk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaana sifaan xam nga li ñu tàmmoon booy dëbb xam nga li li ñu tàmmoon boo dee kàn nag da ngay soxla ñaari kuur mhm. moo doon benn kuur la yor di kàn nag wa haada istifaan qabla nashati aadamin ki ñu tànn balaa ñuy bind maam aadama tàllal tànnal nañ la ci biir tànnal jooju lañ ko nal ay saaba ci lañ ko tànnal ay soxnaam dinañ ko tànnal aw xeetam ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas gis nga lu ma mënoon yàkkamti yàkkamti juddu du ma du ma juddu mukk ci jamono Moussa du ma bokk mukk ci xeetu Daawuda du ma bokk ci Isa yàlla day nag ba gën ñëpp gënal ko ñëpp mu jox ko li gën mooy alquran jox ko guddi gu gën muy guddi laytu qadri jox ko xeet yu gën mu boole ñu ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nga am sens oh. وسالما واعلم بين الماء والدين زايا شيخ الحاج منصور شيخ القوم نه وكان نكون من مصطفى نبيا عالما بالنبوته قبل النبوة والنبأ عالما بالنبوة والنبأ xam nga an nabu mooy xabaar gi an nu bu wuti mooy garaan waaye ñaar yëpp nag Moustapha yëg na ko xam na ko ba la ñu bind maam Adama kaana nabiyan bi nubuwwati aliman waa kiñ ni mooy sa maam te ba ngay am la nga am juddoogul kooku sa lan la wa kaana nabiyan bi nubuwwati aliman ibnu Farid nee na wa inni wa in kuntu ibna adama suratan fa lee fi imaana bi ubuwati وكان نبيا بنبوة عالما من فالنبي المصطفى بذاته الأدمية ابن لآدم وابن بالروحانية أبو الله كان نبيا كان نبيا بنبوة عالما كون بو خولي مصطفى مو ام جيم ام داي ام باي دا نان كي دومي ادم كان نبيا كان نبيا بنبوة عالما واي بو خولي Moustapha mooy abul arwaax. kaana nabiyan bi nubuwwati. aalamiin. Cheikh Abdoul Aziz da nga naan kon Moustapha baayu aadama la doomu aadama la sëtu aadama la. كان النبي من مجال من واي خمولون المصطفى مام ادم لي نيك نيك باي مصطفى روحانية دا يالا اول من لبا على سب ربكم اول ما خلق الله من الانوار نور النبي المصطفى ثم بعد ما خلق نور النبي خلق من خلق وكان بالنبي المصطفى من كان والنار بالنبي المصطفى من نال وصار بالنبي المصطفى من نال لذا قال شيخ الحاج مالي فرد الاصل العالم العلامه الذي علم العلم وزهد الزهد العالم الورع التقي النقي سيد الحاج مالي مملا يوحي téere ba mi azka salaatin wa taslimin ala kamarin min nuuri ne lu maa min anwaari balaa nga gis jant da ngay gis asamaan waaye jant bi nekk na fi asamaan di te asamaan ñëwagul jant bi fi nekk te asamaan ñëwagul moom nabil mustafa mooy rasulullahi sayyidul awwalin wal axirin min nuur

nga mu ne woon is aradallaahu nashatana ñëpp loolu la ñu doon wax de lama aradallaahu xalqa muhammadin xabaran xablatan min janabil izza boo demee téere loolu nga fay fekk de waaye wa innahu moo loolu rek ku wax loolu sëñ maw de si ne falanta nuur sëy xolal ibnu abihi wa abu abihi falantan doomi baayam Seydou Hadj Abdoul Aziz Dabakh bàyyi baayam Seydou Hadj Malick turandoo baayam El Hadj Malick xam nga Maodo maamam Seydou Hadj Malick bi mu ne innahu in abana min nuurihi jàngkat yi dañoo jóg jël seen xalima am na ñoo xam ne seen jàng mi ngi yem ci sujet verbe complément waaye maa baynal kalimaati wal xuruufi comme sëñ Babacar ni xam ngeen lu xew yéen ñii dalagu leen ba di wax ak directeur université xam ngeen lu xew wala anta nuurun xar xuliqta nuuru nabi yi habibillaahi safwatihi min nuur rabbihi bilaa raybin wala tuhami sëñ Modou si ni bàyyi toogal maam toogal maa jànganoog ñoom raw leen bañ nekkee Égypte fu nekk gars yi xam nañ ne maa leen raw maa ne nuurun nabi yi wala anta nuurun xat xalak xat xuliqta tafaddulan di leen di wax joxuñu leen ko ma ne ki may wax maa ngi wala anta maa ngi géñ ne anta yow Muhammad sayyidina Muhammad nuurun فلات نور قد خلق تفضل المستوى yàlla moo la bind maa ngi koy wax ni ko di ko dëggal ni ko sama baay waxee sama maam waxee woon yow Moustapha leer nga koo xam ni لا أنت نور قد خلق تفضلا كون خر تا من ربك تفضلا قد خص برضوان من ربك فاستبير بالدعاء يلا مو مو جيل سي ليرام بن سي نبي مصطفى ني كونتيستي ني ليرو مصطفى بو سي يلا جيل يلا بو جيل سي ليرام بن سي مصطفى خم ني موي قدرته الهيه سي غام يلا مو مeuna بن جي بير اجانا غينار غو خم ني بو ليكي با فري غينار غي كار غينار تا دا جوغو سي غالا بو بغي بن سي ليرام سي سيدا كنت سكنت خافيا لولاك ما nee na yàlla nekkoon nag ndam loo xam ni kenn برب لولاك ما برزت شموس حق الأكوان يا العزيز دقل جورجي لولاك وبعد لولا غالبا حسب الخبر لولا وجودك لولا نبوتك لولا نورك لولا ذاتك لولا إيجادك برول يوم مصطفى لو maa ko defar kenn du xam yàlla. inna tabiata kullaha nixmatun. xanaa xamuloo ni li nga gis ci tabiya beeg lu mu mënti doon lu mu nekk lu ne. dañ koo waaj rek pour mu siyatun zufat maal alhaani. tagar préparation bu préparation bu ànd ak sawarteeg la ak ak bëgg di waajal kan li qurumi taaha. xëy na ma kan moo tax ñuy asamaan si tàllal bi ñu tàllal xam nga gars bu seen waaju ñëw dañuy tàllal tapis rouge. waaye asamaan dañ koo mbaar suuf ñu tàllal ko li xudumi taaxaa ngir waajal ñëw Mustafa li xudumi ba xayramal wati asara mu ni taaha kooku nag huwa xayru man xayri man wati asara wati daxala bi jamaali ayna kon huwa xayru man wati asara وأفضل من تار فوق الثريا كوكو سيدنا محمد تتكحل بجمالي عيناني كيف كو خمني بت مسنا جاكارلوك يا مصطفى على جن مولا داف جبريل نانا جبريل لو يه بيت بيت ما غاي تبيلو سلام بشيرا الروح الامين مو جبريل بلد الامين مويا مكه المكرم محمد الامين مويا رسول الله جبريل يأتي بالسلام يبشرك ما ngay الموسى بالسلام نانكو يا yi naan ko yàlla ngi xudum sada muhammadin bi xanaani abdul aziz yàlla yónni na jibril mu fekk Mustafa toog saaba yaa ngi ko wër mu ne ko inna rabbaka yaqra'uka salaam yàllaa ngi lay nuyu yàllaa ngi lay nuyu yàllaa ngi lay nuyu Mustafa jibril ñëw ni Mustafa yàllaa ngi lay nuyu mu ne ko labbayka wa saadayka lu yàlla wax mu ne ko inna rabbaka yaqulu yàlla nee na yastahi an yu'adhiba man tasamma bi ismika yàlla mu ne wax dëgg yàlla lu doy waar xool na xool xool xool waaye nan lay def na xamul nan nan lay def ak naka lay def ci ku mu xool ñu tudde ko سيدنا محمد بقول وصفه سبحان من جعل الرسول معلما اه صار ما خارج يوت ما صار بوب دي مين بدينا انه اذا اراد الله نشأة مولانا من نوره نورا بالعالم شاءت آه، الله نشأة موضع أبانا من نوره نورا ما بالعالم إذا أراد الله نشأة موضع أبانا من نوره نورا ما وإنه إذا أراد الله نشأة موضع أبانا من نوره

هي من على النساء شرفا فنوى نسبة وافتخارا من جنود إلا إذا أراد الله نشأتنا بعد من نور نورنا بالعالم في الشعب يوما فينا المختار من أغرى وقال الله الودم مودا يحبانا من نوري نورنا بالعالم إلى العربات حل الدر في رجاء ثم المنادي ينادي مسميع الخير Wasi da lañu wuti ndax amna mune amna may nañ ko kuko may wa qila zawajaha wahbun wa qiila wuhaybun waye Maodo bu lay wax ko bu lay wax ki mu andal sax da ci bolé teggin bay dax góor Cheikh Abdoul Aziz ma Maodo bu lay wax ki mu andal sax da ciy boole teggin wa qila zawajaha wahbun wa qiila wuhaybun amuha wa murabbiha bi ajri jimi nee nañu wax boo ko mayee ñi ne waxay bu la kuy waxay bu mooy ki ko yar ci biir këram ah, kon leer na wax boo nga nar waxay boo nga ci ki ñu war a mayee mi ngi ci waawa ci biir këram la ko yare buñ ne kii ko mayee wala kële kan la gën a jege ki ko yar ci biir këram waxii la waxay bu na am waa kon li gën a wér moo doon àndal waxay bu na ko mayee mi bàyyi ko moo ko mayee moo ko yar ولا المعتقد نقول امنه سيدنا امنه وهي حينئذ على النساء شرفا على النساء نسبه على النساء افتخارا اوكي على النساء ونسبه آه. سلطان وابدي خار من جنوبي وهي حين وهي حين أهل شرفا مولانا على النساء نسبة من جنوبي xam na Maodo mu ne xam naa la ca topp ñu ne si lan moo xew mu ne xam naa sax jëlli weer gi jëlli weer gi xam naa fan la xewee si Abdoul Aziz xam naa jëlli weer gi fan la fi chiab bi yow ma chinaar muxtaara xat xamalat kon xat xamalat al muxtaara fi chiab bi yow ma chinaar Abdou Balma rek Abdou Balma عبدالعزيز مي أمي الشيب أبو طالب كان لكو يوم الشينا المختار كان حملا أخر حملا المختارة في الشعب يوم الشينا وقال سولو من عبد الله التشتري تقولوا بقى للأروبة تقولوا يا أروبة ما يوم الجمعة أروبة تجاهلية الجمعة أروبة لن تدن وغي أما كان موكو نجك تدي أروبة موكو تدي موكو نجك تدي يوم الجمعة كعبو ابن الوي maami Moustapha moom moo njëkk a tuddee aruuma yawmal jumaati moo da bëgg la wax ni xew-xew bii boobu tuddee guñ ko yawmul jumaa mu ne aruuba mu ne xam naa bii xam naa bi mën naa fii mën naa fee loolu tax mu ne leelal arubati barakallah fi rajabin rajabahu rajaban yuraajibuhu rajaban wa rujuban rajabahu yuraajibuhu rajaban wa rujuban ay aadamahu

yunaadi waxiina yunaadi yusmiu musmial musmial fahimi ndax xam nga xam nga xam nga bu ne woon sumal munaadi ah. bu nekkoon ñi bu nekkoon aji woote ji bu mu woote ñëpp dégg mhm. ñëppay wuy ji summal munaadi mhm. topp aji woote ja yunaadi waxiina yunaadi yusmiu musmial fahimi waaw waaw kay ma ngay dégg dégtal kan la dégtal boroom dégg goo xam ne lu mu dégg nangu ko jërëjëf Souleymane. xam nga nan la demee. waaw kay ñii sami ow. Uh-huh. sami naa wa asay na. waaw ñii sami naa wa ataana. mos ma alfahimi moomam sami naa wa ataana. kon yunaadi wa yusmiu ina yunaadi man yunaadi yusmiu musmiu alfahim barakallahu yàlla defal jàmm amin ya rabbil alamin defal tawfiq allahumma amin loolu xam naa moom lañ doon teg suñu baaraam wallahi ci muy ndéwénalu koor gi barakallah Cheikh Seydou Hadji Malick radiyallahu taala lim ñu indil bàyyi gaaw góor si Aziz Maodo lim ñu bàyyee wallahi Maodo lim ñu bàyyee Mam Maodo nangu na ngénte li tey la nangu na dëj bi tey la nangu na takk gi tey la nangu na gàmmu gi tey la nangu na tamxarit gi tey la nangu na korite gi tey la nangu na tey dañoo woor ndax lépp mën naa wàlli ci laam yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu يوم المجازات خيرا يبنى عثمانا وهبت مئات كم وهبت ألوفا كم وهبت كرات يا ابن عثمان لله درك من شيخ يدل على مولاه قولا وفعلا يا ابن عثمان فكم وهبت مئات كم وهبت مولاه وابتك الراجي يا ابن عثمان لله درك من شيخك يدل على مولاه قولا وفعلا لم عثمان أي فكم وهبت آتك وهبت أيوة كم وهبت قرآن يا ابن عثمان سالك واصل لولاك ما كان كم وهبت مئات كم وهبت ألوفا كم وهبت كرات يا ابن عثمان بذلت مالا وعلما مزريا لفقير هاديا لجولي يا ابن عثمان فكم وهبت كم وهبت كرفاتي يا ابن عثمان مدرسا كل علم كان مدرسا بين المدارس بيطانا وسودان سيدنا عثمان بين المدارس أي مدارس مدارس المدارس بيدانا وسلطان كيف بين المدارس مدارس radiallahu taala anhu yàlla nañu ko yàlla fayal maam Cheikh Seydil Hadji Malick jërëjëf alhaji Souleymane Ba jërëjëf alhaji Abdoul Aziz yow ñi nga àndal waaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun tamit doon euh, seetaan di bàyyi xel ndéwén na li yaakaar naa ne ñëpp kontaan nañ te ñëpp euh, doyaluñu sax waaye tabaarakallahu télévision moo demee nun tafsir Hamidou Wele mu mel nii dañu nekk nag ci càppaat ndaw ga war a yëkkati jotaay bi war a tàggatoo tàggatoo bi nag dama bëgg rek mu nekk ci lenn muy jaayante bi jaayante bi mooy lan dañuy waaj a ubbi jumaay Tiwaawoon te bu ñuy wax lu ñu dañuy waaj ubbi nangam nag mooy day waaja a pare comme que day waaj pare nag mi ngi ci finition finition boobu nag tabaarakallaahu xalifa bi sëñ Babacar Si Mansour joxewaat ndigal ne ñëpp nañ ci defaat seen loxo xam nga bu ne ñëpp nañ ci defaat seen loxo mooy moom yëg na ne taalibe yi am nañ njàmbaarte gu toll na ñëpp ci defoon seen loxo waaye nag mu ne ñëpp nañ ci defaat seen loxo ngir na liggéey ba teel a yemb ngir bu bu bu bu gàmmu déwén ñëwee incha allahu taala ñu fay mawlaaya salli wa sallim daayiman abadan di fa naasiril xaq bil xaq ah tabarakallahu di fa wasalliyan yaa ilaa muy jolli ca kaw ca jumaayati waawoon ja loolu rek jar na kenn ku nekk la nga yor lépp nga jël ko def ko ci jumaayati waawoon ji loolu nag tabarakallahu ci laay joxe kàddu gi nga xam mooy alxaaji Abdul Aziz mu ko alxaaji Daagóor joxal ma ko micro bi incha allahu taala ngir wote bi nga xam ne xalifa bi sëñ Babacar Mansour woote na ko ngir ñu gën a góorgóorlu ci liggéeyu jumaa ji ngir taalibe yëpp tabaarakallaahu gën cee def seen alal bàyyi alxaj daaw ko ak kàddu yi nga xam ne moom ngay moom ngay di tàgguwaale incha allah alhamdulilah ñun daal bëggal nañu mbooleem koo xam ne kii soppe yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag muy ci kër biir Cheikh Seydi El Hadji Malick nit nag bu lay bëggal ca la mu man waaw da koy bëggal ca la nga xam ñun lii lañu xam lii lañu ñu mën mm-hmm. waaye ñun li ñu bëgg ñu bëggal lañu ko mooy mm. jumaay Seydi El Hadji Malick ji ñu daal soxlawuñu ku ñu woo yónnee nu million soxlawuñu ku ñu woo mm-hmm. dugalal nu xaalis loo ñuy yónnee ak loo ñuy dugalal mm. dugal ko ca jumaa ja piis yi ñuy wax. muy pins yi. waaw kenn ku ne xam nga jumaa ji alalam pare na. ba mu paree yàgg na gis nga lii ñuy wax nii ak di laaj nii. jumaa ji xaalisam pare na de. pare na bu yàgg dañu bëgg yiw wi. ñëpp bokk ko. ba ñu ko jëkkee woote am na ko taxaw ni papa Abdou bàyyil ma liggéey ko. papa Abdou ni ko déet xam naa ne su ma ko bàyyee nga liggéey ko. waaye moom Cheikh Al Hadj Abdou Aziz da baax. waaye dama bëgg jullit yëpp. dugal ci seen loxo kooku dafa yéene ñëpp jàmm loolu nag la Sidi Boubacar jële ca baayam bu tedd ba ni na ñëpp dugal seeni loxo ngir yéene ñëpp yiw waaye jumaa ji léppam pare na de bu ñëpp toogoon joxewuñ dara de bu bés ba jotee ñun li ñëw leen julli am na ku ni ne man de joxewu moon su ma yëgoon joxe ndekki lii lañ doon laaj waaye te ngaa joxe ci teel bala ngaa àgg gis mu mel na mu war a mel nga ne man de su ma yëgoon dugal loolu ëpp lii nañu góorgóorlu ci jumaa ji am na farata ah. farata la ci ñun farata la ci képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu nu fa kàbbaree waaye duñ jàng duñu duñ jàng benn xasida bismillahi rahmaani rahim la ñuy jàng lañ cay teg saar lañ cay teg allahu akbar waa kon kay ñun bu nu wootee yàlla taxaw ñu woote wa anna al masajida lillahi fala tad'u maa allahi ahada loolu du yàlla ko wax ci alquran ah, kon kay ku mu doon ku ne tey jullit war na ci yow nga def ca jàkka joojee muy jumaa ji Seydi Hadji Malick yal na yàlla may ñu fekk ko allahumma amiin te tal ko te bu ñu koy ubbi ñu ànd ak Seydi Boubacar mu Cheikh Alhaji Mouhamadou Mansour mu Cheikh Seydi Hadji Malick yàlla may ko wér yàlla may ko gudd fan ak ay rakkam Cheikh Alhaji Malick Sy Maodo ak Seydi Aboubacar mu Cheikh Alhaji Abdou Aziz Deme ak seen rakk ju baax ju tee ju yaru ji wallahi mu Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour yàlla may leen wér yàlla may leen gudd fan ñun nag mm-hmm. lii nga xam ne moom la ñuy def suñu warugar la mm-hmm. lii du lu ñuy jox du lu ñuy neexal mm-hmm. déedéet obligatoire la ci ñun pour ñu def ko ndax ni ñu juddoo ci kan ci góor gi mu saale ci barke kan Cheikh Seydi Hadji Malick ak kan góor gi mool ma samba jéeri jan ñooñee mënuñu leen a fay ñi ñëpp ci la ñu tagg yonent bi rek tam na ñeneen ñoo xam ne ñëwagun te ñooña bu ñu ñëwee li ñuy wax ñun ñii ñoom yeneen la ñuy wax loolu Maodo ko def moom la góor ga wax tagg yonent ba ma si xaj Malick kontaan làmb poosam génn ñetti doomi góor ka Moussa Tédé lii fi ne mun ko indi li fi ne mu jox ko góor ga ma waaye nag Moussa waxal loo bëgg ma war lu la ko mun ko dara tëgg yonent la Muhammad ak lu fekk ci man rek di tëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te rek yem ci gurug mu ni ko rek bu yowmal xiyaamee lépp loo xam ne yàlla sédd na ma ko lu mu mën a toll naa ko bokk ak yow waaw loolu doy di ñaanal na xale yi yàlla sàmm leen yàlla wattu leen di ñaanal lit borom kër gi mu Seydina Omar yàlla sàmm ko yàlla taxawu ko lii mu taxawal rëy na lool lii am na lu mu dundal lu bare bare ay multi multi multi milliards la dundal ci tariqa bi wallaahi yéen ñi taxaw te jàppale ko ci mbir mi ñu ngi leen di sant di ñaanal yàlla jàmbaar ngeen alal bàyyi wu leen fi am ah. ngor moo leen fi bàyyi ak diine ak sopp kër Seydi Hadji Malick yal na leen yàlla taxaw Souleymane yal na def mag gudd fan ñun kenn mënuñoo nax ci mpir yi donte su naa lu àggu fa it kenn ku déglu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh mu wax nga dégg mu jëf nga gis nga toog di déglu keneen ku mu doon ku ko déglu ku mu doon ku ne laalu ko raw toog ci di déglu ko raw loolu yombul loolu raw yàlla saxal la ci ne nga wax ko mu leer nañ te rafet loolu te ku kuy borom xam-xam nangu ko mun koo dégg man seetaan naa la ca Banjul mm. da ngaa firi ba yal na ko yàlla yërëm Habib Ndiaye mm-hmm. ndeysaan waaw Habib Ndiaye Habib Ndiaye Bouchra ndeysaan bu Bouchra dafa jóg akolaat ko fóon ko fii fóon ko fii dindi kaala ga ca te dafa bëgg xam-xam loolee nga wax foofu xam nga looloo tax mu def loolu na la yàlla saxal yàlla may la wér yàlla may la gudd fan jërë ngeen jëf fa tabaarakallah matal na kàddu gépp jumaa ji benn bat benn kàddu rek lay wax képp koo xam ne sopp na Cheikhul Hadj Abdou Aziz Sy war naa mën a def ci jumaa ji ndax yaakaar naa ne moom du tijjaani rek ñoo ko sopp yéeféer yi sax sopp nañ ko kon nag bu ñu mànkoo ñun ñëpp wane seen cofeel ci moom buñ ko waxat ñaari yoon te am naa yaakaar ne insha allahu taala dana yegg dana yegg ci loxoy sëriñ bi itam ci dina ko jiite ay rakkam daan ca topp ku ko soppi te bëgg la ko loola daa ca ànd noonu la ñuy ñaanale ñi nga xam ni ñooñu lañ jël liggéey bi teg ko seen loxo. ñu di ko soytu. sonn ci lool. seen yitte du dara lu jumaa ji yegg. benn yitte. ka ca ba badi Mahamadul Muxtar Cissé. sonn ci lool lu na mu daj ko ci. nee na ma ku ñaanal bu ma ñaanal. boo may ñaanal. bu ma ñaanal mm. man. Mm. نيان المجمع جيك والله والله والله اسكي لولو فلا بق بق يم والله ليش فلا يين يم نيوم نيغا خم نيو كاي سي تام موم مو نيك تي كانهم يانا تي ام سات امين يا رب العالمين ام نيوم فام رك تبارك الله امين إيه غورغي لي مو يكتي كير بيم كو يكتي تي زيفيبا نيب لا سين خول فيخ والله تي بوردو ba mu toogee ni jumaa ji ñëpp siggi wallaahi boobu googu nit ñi siggi nag yal nañ ko siggee ñu xool soor ba ca kaw ñun ñëpp ñu fekk watu tal ko wax ji jeex na mhm. jumaa ji moom bërigom ba tegal ci mbartal rek ah, boo tegee mu dem boo tegul mu dem ah, àgg na yàgg na nii ñi ci des te duggaluñu mhm. ñoom la ñu bëgg ñu dem àjjana moo tax ñu soññ macha allah eh, kuy def damaa jënd. ku ci naru def sa dërëm. yërëm naa la. wallaahi loolu. yàlla li mu yor da koy jaay. Mhm. li mu yor daf koy jaay. Mhm. njëg gi moo di nga def ko fa nga xamante ni si fa la bëgg nga def ko ca. Mhm. am na ñoo xamante ni seen alal du dugg ci lu yàlla ne. te lii yàlla ngi ci. ñu ñaan mbooloo mi rek rek kenn ko defoon nga wax dëgg yàlla waaye julli am na julli fajar julli la de tisbaar amul du julli takkusaan nag gee timis noonu julli yu tegloo la ñuy bëgg ni ñi tegaleel joxe bi macha allah yal na yàlla yombalal ak joxe allahumma amin yàlla sàmm leen amin yal nañ ko téewe nag di déwén amin ya rabbal alamin rafetul fekk Souleymane jërëjëf. jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz barakallah jërëjëf. yéen yàlla sàmm la ni ko xaj jaabul waxee rek. wax naa la ci Banjul ni la. Mhm. ñii nga ko firee nii nan la ko ma ngi daan firee. parce que parce que ñaar ñaar tax seen wax naa la ko de. Mhm. ñaar ñaar tax seen barke. incha allah ndax fii nga jaar fii. marra ala imra'atin bi. Mhm. dégg naa ci góor Ahmed Sépir mu ni. ñaari bayit miim ya ku ci benn guddi. mokkaloo ko. lu nekk nga ci parce que lu nekk nga ci baarakallah. Ah. yii fi nañ koy wax muy leer. ragal wax baaxul. ñaari bayti mi wér. Hmm. ku ko firi ci benn benn benn benn. ku ko firi ci génn guddi. mokkaloo ko. ndax man seen xaaj maa di daan bind may weer. jazakumullahu a asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla. moom doomu Seydi Hadj Malick kenn warul bëgg ci ñun lu jafe rawatina ko moom wallaay ndeysaan alalam la moo ko moom moo tax incha allah lu mu ci bëgg rek doo di dañuy raam def ko daan ko def tabarakallah yéen ko yàlla sàmm sàmm leen yéen tam jërëjëf amin yàlla woyofal seen lamiñ yàlla bu ngeen jum ci kàttu allahumma amin allahumma amin jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Alxaaj Abdul Aziz yéen itam ñu gërëm leen ci sama kàddu euh, ma ma Omar Ndiaye mi ngi leen di sant di leen gërëm euh, comme ni nga ko waxee du loo du lu ngeen wax rek da ngeen ko dund ak moom moom xam na cër bi ngeen ko jox xam na tamit fi ngeen ko teg moom tamit xam na cofeel gi mu leen ëmbal fa tabaarakallaahu fu mu toll di ko wax fu mu toll di leen ñaanal kon boog Alxaaj Abdul Aziz Baye Daagóor yéen yi ngeen àndal ñëpp Euh, maam Omar ak waa group Asfiya yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla euh, fa tabarakallahu ci jaayante boobu Alaaji Souleymane Ba euh, damay leeralal mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan incha allah ñeen jàkkaarloo seen écran seen écran télévision mën ngeen a fi ngeen toog rek man ngeen def seen jaayante ci bande boobu nga xam ne moom ngeen di gis muy feeñ ci seen écran moo xam orange mën na la wala wéef fa tabarakallahu ci QR code bi da ngay daal di da ngay da ngay scanner téléphone rek mu yóbbu la directement ci euh, compte Jamaatu Nour Assunniya nga dugal sa yéene moo xamu Wave la wala Orange Money wala nga jaar ci Orange Money bi cent jees 144 jees def cinq étoiles def 41 26 91 jees mu dugal la ci compte euh, euh, jamaatu Noor Assunniya nga dugal sa yéene wala boog bu fekkee da ngaa nekk bitim réew dugal gaaw ci compte Facebook bu jamaatu Noor Assunniya da fa fekk mboolem numéro euh, compte banque yëpp incha allahu taala nga dugal fa sa yéene tabaarakallahu boo ci bëgg gën a bëgg am information la wooteel ci 33 876. 49 87 wala 78 461 50 50 mbokk yi continué leen seen jaayante ziidoo fa ziidoo nga waxoon léegi. duna masa am mu ngoog. looloo tax ma wax barki dem ba demee ci jumaa yam ma ne ku defoon defaatal. li ngay bëgg a jeex mu ngoog. nga ne. non naa ku defoon defaatal. waaw mu ngay bëgg a jeex. ah kon nañu na gaa yi gaawtu. ku deful woon defal balaa muy jeex. waaw loolu nag moo ci nekk. waaw. ah waaw xam nga maanaam waaw. xam nga jumaa ji taxaw gaa yi dugg fa nga sol sa garaam bu xam nga ne garaam bu sax am na kees dafoo ci dërëm nga dem jënd garaam bu jar bu jar cent mille francs ak koppati tuuroo sa parfum taxaw waaw ba fa taxawee xam ne garaam bu am bu am gàcce hmm. ah? ne wax jox ko micro bi mu ko mu ne am na mbokk mu ci def dix millions parce bokkuñu tarixa te siiwul

léegi maanaam démb dama benn xisa rek démb mu gaaw waaw démb si Abdoulaye toog benn waay ñëw mhm. waa ji bi muy ñëw ci man pour man dafay ñaan sunu ndogo mhm. yàlla xam na ko yàlla laa ko seedaloo mhm. pour man bi muy ñëw ci man dafa may ñaan sunu ndogo mu ni ma pinc yi jar juróomi junni laa laaj ko koy jaay ndeysaan ma nga takk benn de wallaahi may sikki sàkka mu ni ma pinc yi ñuy jaayee juróomi junni di ko def ci jumaa ji laa bëgg nga yóbbu ma ci ki koy jaay ma yóbbu ko ci shérif toob shérif ni ma jeexal na ma ni ko ma joxoñ ko sëñ Moustapha Sy mu dem seet fan la ñuy jëndee pincir kon li may wax foofu rek mooy am na ñoo xamante ni bii ñoo ngi romb waaye seen yitte ci yàlla kawe na yàlla yàlla yàlla yàlla def tooke di sant ñoom sëñ Abdoul Aziz ñoom Baye Daaw Góor jërëjëf damay wax yéen yéen ëpp ngeen sax di way ñuy firi ñu macha allah ndax yéen tabaarkalla seen maqaama kawe nañu ma jaar télé ma ma war juróomi junni yi wax na ne incha allah dina ñëw ci kanam Euh, comme dafa jeexoon 77 euh, ba ki yor pins yi Haj Malik 77 la 567 65 64 inshallah taala moy jaay pins yi mu ngoog fin du mois yëpp na disponible inshallah allah muy jar 25000 mm. euh 25 000 am Hamid wala looy tëjee Masya allah ñu ngi sant yàlla bu baax. di sant di <laughs> sant ñoom Bay Abdou Aziz Mbaye ak ñoom euh, Baye Daw Góor. ak mbooleem kuy njabootu Maam Moussa All yëpp. Mhm. tabaarakallahu taaral nañ jotaay bi. waaye itam li nit ñi añee ci julli gi. Mhm. Euh, reesal nañ ko ci jaay yi leen yàlla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa aji su lay bég nañ kontaan nañ. macha allah li ñoom Serigne Abdou wax. loolu la ñëpp di wax firi bi mhm. leer na. Euh, weesu woo min baadu bi weesu woo marra alam raati fa tabaarakallahu yàlla yàlla fay la ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masaw ñëpp coono xaj Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf ni nga ko waxee ñi ngi ñi ngi baalu ñëpp ak waaye di jaajëfal ñëpp rawat na ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci ramadan yaat bi professeur Serigne Mame Ousmane Ndiaye ak nga xam ne moom mooy xaj Lamine Samb waaye tamit suñu journaliste yi ku ci mel ni Mouhamed ñoom Aïssa Aïssatou Diaw tabaraka ñoom Gala Daouda Sall góor gi Malick sant leen gërëm leen waaye mboolem ñi nga xam ne tamit jaar nañu ci ramadaniyaat def fi ay waxtaan yu ama am solo sëriñ maam Alfa Si tabarak sëriñ Sidi Ahmed Si Al Amin sëriñ Ahmed Fall Ababacar Ba Tidiane Ahmed Omar Gueye sëriñ Ahmed Sarr tabarakallah Cheikh Tidiane Wade Mouallim Cheikh Idrissa Diop tabarakallahu Pape Diop Mbaye ci Cheikh Omar Fouti Cheikh Ahmed Tidiane Tall Oustaz Omar Silla fa tabarakallahu ak ki nga xam ne moom mooy sëriñ Moulay Si ah ñoom ñëpp tabarakallah ak Oustaz Omar Dia ak Balla Dia Babacar Thiam Mam As Sarr Tabarak Sa Habib Fall ñoom ñëpp ak xaaj Mansour Diène xadam si xadam Cissé Kër Seydi Jamil ak tabarakallahu Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen waaye mboolem tàggkatu yent yi nga xam ne jaar nañ fi ku ci mel ni alxaaji Sidi Ahmed Mbaye mi macha allah Sam alxaaji Sam Boub Babacar Kassé waa Sanaa Rasoul Alioune Badra Ndoye Sam ak ca ñaari tali ak ki nga xam ne mooy Moustapha Ndiaye maam Jamil chandum malik Ba Makhtar Diop Babacar Diop tabarak soppe da baax Abdoul Aziz Ndiaye ah Papa Diba Mansour Sow ñoom ñëpp tabaarakallahu ak ki nga xam ne moom mooy ñoom ñëpp taggatu yonent bi saa sallam ñi fi jaar ñëpp ñu sant leen gërëm leen waaye gërëm suñu sponsor yi nga xam ne ñooñu ñooñu gunge nag ba ñu yegg si fii ku ci mel ne Orange ak Eau Royal Huile Jador ak Kër Yaay Dior am ameublement ak Minimarché Al Amin LPM librairie papeterie Mohamed Coursif groupe Mew Dano serveur si les fidèles de Asfiyahi soppee groupe soppee asfiyaay groupe ànd dooleel asfiyaay waaye groupe soppee asfiyaay nag ñu jaal leen tabaarakallaahu suñu jigéen ku amoon pas-pas lool ci groupe soppee asfiyaay muy soxna abi mbeng di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm jumaa ji tabaarakallaahu def na ci alalam bataay waaye tamit euh, kër gii di asfiyaay def na ci alalam bataay soppoon euh, mam Seex Seydi El Hadji soppoon Seex Seydi Seex a Ahmad Tijaani Chérif radiyallahu anhu soppoon yonti yàlla Muhammad sallallahu soppoon diine rek moo taxoon mu bokkoon ci groupe soppee asfiyaay tabarakallahu ci fan yu mujj yi ci koor gi la ko yàlla moom yàlla na ko yàlla teeru yërmande ko teeru ko ci yërmandeem jéggal ko xaare ko aljanna ci barke yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye tamit fa tabarakallahu waa équipe technique bi ala ci njiital alxaaji Moussa Diop Mouhamed Lamine Traoré ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokk ak ñoom Mouhamadou Ndoye ñoom Babacar Kane tabarakallahu ak ñoom soxna Fat Bintou Dabo ah ñoom Cheikh Omar Diagne ak Mouhamed Ndiaye picc mi ñoom ñëpp tamit ñu sant leen gërëm leen waaye tamit di sant nag ki nga xam ne moom mooy euh, tabaarakallaa Hadj Jibril Dieng ak ki nga xam ne moom mooy soxna Abi Guèye soxnaam euh, ca dëgg-dëgg taxu nañ ñu ci ramadaana yaat yëpp mboolem invité bu am danaan ñoom ñoo naan ñu na jaar kër dañ jaar kër ga ndogu ba pare buñ pare ñu indil leen fii seen reer kon boog ñoom tabaarakallaahu xale asfiya yi ah ñoom nga xam ne ñoo jaboote xale asfiya yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen ñaanal yàlla yére bii ma sol korité ko mu rafet lool moom moom xaj Jibril Dieng ak soxnaam tabaarakallaahu ñoo ko ñaw ba mu jekk ñu ne ma am solal ci korité gi tabaarakallaahu kon ñoom tam ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm mais di sant tamit madame Niang muy euh, soxna Awa Niang euh, muy euh, borom këru Moussa Diop moom tam tabaarakallaahu guddi gi lay la ci Euh, ki guddig leelu xadr macha allah moo ñu fi indil euh, suñu reer euh, Baye Samba Dia alxuraan ñoom ñëpp tabaraka xaaj Mamour Dem ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen sant équipe bi yëpp waaye nag cant gi yëpp nag ñu jël ko teg ko ci loxol Serigne Maam Omar Ndiaye fa tabarakallahu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla dolli ndam mbokk yi daal ñun ñëpp bég nañ kontaan nañ yàlla na yàlla fay leen di leen baalu àq di leen wax déwénati leen wa kullu aamin wa antum bi alfi xayr والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الوالدين سيد الحرب الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الواهب النعم ndaw lu njëkk ci tas xibaar diine islam ak tarixa tijaan ci Sénégal këru liggéeyukaay bii di Asfia bokk na ci way taskatu xibaar yi ci Sénégal tàmbalee ci jamono août 2009 ba léegi mu ngi yëngu ci meloy diine islam tarixa tijaan ba tey ji mu fës loolu ci boppu taskatu xibaar yi ci réew mi yéen mbokk yëglekat yi rajo télévision bu asfia moo leen di yombalal siiwuluk seen ay xew-xew njëkk bés bi ci bés bi ak ginnaaw bés bi di leen dëgtal ay anam yu ñu leen mën a gisee yu taaru ànd ak njeexital yu am solo di jaar ci mboolem suñuy émission yu mag yii di marhaban sénégal émission buy xëy ak yéen ci xibaar diine dale ko ci altine ba aljuma ànd ak ay xët yu bare te altine ba alxamis and ak ay gamu guddi yonent bi samedi su jot sunu métier émission biñu ñu kom kom gi di duggu ci seen bërëbu liggéeyukaay entreprise à la une ñu joyal ko ci fësal këru bu askonong ndaw yek digg doom yi nabi gannaaw bépp yor yor dooree ko ci altiné ba alxamis ultra sport di ràññeeku ci tagat yaram ëttu jigen ñi Senegal sénégal ak ay melom yu wute almukalaf yu ndaw ñi ak itam tëralinu yoon yu bax yi Ashifa wérgu yaram ak environnement jotaayu diaspora di yëngu ci xëyu waa Sénégal yi féete bitim réew ak yeneeni émission ak waxtaan yu ñu leen jagleel àndal ak Asfia mu fësal say événement ak say produit ngeen mën ko am ci bépp seetaanukaay njabootu FM ngéeg xarala yi ngir bépp leeral wooteel ci 78 459 30 30